asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi après quelques semaine quelques mercredis de de veille toog euh, noppali ko tuuti avec de changements yoo xam ne lépp rek pour ngeen gën a bëgg ci émission entre deux bi ngeen moo tax tey nag après quelques semaines ñu toog tey ñu indi indi leen invité boo xam ni de marque bu ñu bàyyee Momar euh, mu nuyu ba pare di ngeen xam ki ñu invité tey kan la Momar na nga def. mais Babacar maa ngi fi rek maa ngi lay nuyu di nuyu ñi seetaan. xam naa ni jombul ñu namoon ñu waaye ñun ñoo leen a gënoon a namm. Euh, ñëw nag tey ak invité bu mag comme ni nga ko waxee. Euh, koo xam ne nag duñ koy faral di dégg sax bëriwul <laughs> waaw euh, am na ko ma laaj tey ni ma koo leen am invité ma wax ko ko mu ne ma ah moom de lu ñu koy faral di dégg bëriwul ma ne ko waa ah, kon nag tey di ngeen ko dégg <laughs> Babacar mu bàyyi la ko dugal fa invité te pourtant jaar-jaaram nag nañ ci am am nañ ci élément boo xam ne spécial boo xam ni di ngeen xam di ngeen gën a xam ki ñu invité kan la mais mën nañ leen wax ne dèjà Modou Diagne Fada ah ministre des collectivités territoriales de l'aménagement et du développement des territoires moom la ko Macky Sall fal ci gouvernement bu yees bi ngeen gis depuis quelque semaine ou quelques jours en tout cas tey moom la ñu am fi invité nekk également conseil départemental président conseil départemental bu Kébémer mu Diagne Fada e, Fada également jiite parti bi ñu woowee LDR Yeesal les réformateur démocrates donc loolu yëpp casquette la ci benn nit bëri na naam waaye attan na ko parce que parcours am ñëpp xam nañ ni parcours bu jéggi dayu la mu ànd fekk euh, Abdoulaye Wade tey mu ànd ak président Macky Sall monsieur le ministre dalal jàmm sa émission entre deux. jërëjëf euh, Babacar jërëjëf euh, Momar ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di gërëm ñoo ngi leen di sant di nuyu suñu mbokku téléspectateurs yi di leen gërëm di leen sant. di am mbégte di ñëw ci seen émission. Euh, lu ma yàggoon bëgg la. dëgg euh, yéen tamit lu ngeen yàggoon bëgg la mais tey la ko yàlla dogal ñu ko ci sant ndax jaam loolu la am day bëgg mais yàlla mooy dogal. Hmm. Euh, yéen tamit ngeen nekk de grands journalistes ay hommes de médias yu réew mi yëpp xàmmee di leen topp aussi donc am naa mbégte daal am naa yàqin daal ne. daañ fi wax lu nga xam ne luy jëriñ Sénégalais yi la te loolu rek mooy li nga xam ne moo ñu tax a jóg am na solo monsieur le ministre peut la jeune génération mën nañ ko xam mën nañ ko bañ a xam mais ngeen jàpp ni rek déjà nekkoon na secrétaire général UJTL UJTL mooy jeunesse libérale bu PDS ah union des jeunesses libérales et travaillistes du PDS bi nga xam ni jiite na ko nekkoon na fi député à l'Assemblée nationale xam nga loolu yàgg na boobu nag PDS mi ngi opposition mu nekk fi ministre bi mu jógee ministre am benn détour boo xam ni Sonacos ah nekk euh, DG directeur général Sonacos léegi nag ñëwaat na ci gouvernement nekk wax naa ko léegi ministre des collectivités territoriales. donc euh, Modou Diagne Fada boobu la ñuy invité mais dañu leen di bàyyi ngeen seetaan élément de présentation bi ngeen gën a ràññee kan la avant ñu ñëwaat ci plateau bi. turam daal di fës ca daara ju kawe bi di université Cheikh Anta Diop bu Dakar Modou Diagne Fada doon eh, kenn ndaw bi nga xamante ni nag askan wi daal nañ ko bàyyi xel ci ba muy nekk ndongo foofu ca daara ju kawe ji. kóolute bi nga xamante ni nag moom la maître Abdoulaye wadd am ci moom waral ba atum 1995 mu daal di dugg rek ci cabinet maître Abdoulaye wadd nekk ministre d'état ginnaaw nag bi góor gi nag duggee ci di ñoo nationale. atum 1997 bi turam fësee nag ci ndaw ñi maître Abdoulaye Wade daal di ko nommé nag ceef de cabinet ñu daal di ko investir nag ci liste nationale li ni mel di firndeel ni rek Modou Diagne Fada bi muy nekk parlementaire daanaka ñaar fukki at ak juróom-ñaar la am ci bi muy nekk jëwriñ fanweeri at dong la amoon. atum 2000 bi maître Abdoulaye wadd nekkee njiit réew bu Sénégal ci jamono jooju nag la ñu daal di tabb Modou Diagne Fada nekk jëwriñ gi ñu dénk wàllum ndaw ñi. atum 2001 ju daal di ko nommé nag porte parole ki yor kàddu PDS parti démocratique sénégalais loolu nag wu ko jiite ñi di ndaw ñu bokk ci parti démocratique sénégalais. atum moo Modou Diagne Fada ñu daal di ko tabb ministre gi ñu dénk wàllum lii di alam bi di ministre de l' environnement de la protection de la nature diggante atum 2005 jàpp moo Modou Diagne Fada nag mu mel ni ku nekkoon ci xat-xat waral ba mu daal di teg ab mouvement tuddee ko lii di waar wi mu am ñetti siège foofu ca pencum ndaw réewu Sénégal ci atum 2007. atum 2009 moom Modou Diagne Fada nag daal di delluwaat rek ci gouvernement bi ñu daal di ko dénk lii di wàllum wér-gu-yaram ak prévention atum moo Modou Diagne Fada daal di jiite nag foofu ca pencum ndaw réewu Sénégal groupe parlementaire libéraux et démocrates ca pencum ndaw réew mi ñi ki fukki fan ak juróom ci weeru octobre atum 2015 ñu daal di ko jëlee nag ci parti démocratique sénégalais ginnaaw bi mu bañee nag jox postam kii di Aïda Mbocc ay at daal di si topp ñu daal di tabb Modou Diagne Fada jiite lii di sonakos ci jamono jooju nag Sonacos nekkoon say jafe-jafe ñu bëri sax jàpp ni liggéey bi mu fa amal moo waral nag ci gouvernement bu mujj bi nag moom la ñu daal di dénk lii di collectivité territoriale ginnaaw nag ñi fay liggéeyee nag ci ay fan yu bëri nekkoon si ay jafe mu mel ni nag si juróomi at yi dese bile gouvernement lu bëri nag di xaar Modou Diagne Fada. Hmm. am na solo Amadou Diaw élément boobu nga ñu indil mu permettre ñu quand ñu gën a xam ki nga xamee ni moom la ñu invité tey euh, si Sonacos boobu laay taxaw tuuti. Mm-hmm. moment bi ñu la fa génnee xam nga ñu ngi en pleine campagne électorale monsieur le ministre. ñu jël euh, agricole agricole lu ma wax. électoral <laughs> politique bàyyi ma <laughs> campagne agricole ñu jëlee la fa moment boobu est-ce que nekkul risque par rapport ak équipe yi direction bu bees bi fa war a ñëw mën a mënee campagne bi ñu nekk agricole. bon xam nga chef de l'État euh, euh, monsieur le président de la République euh, Macky Sall euh, moom moo nekk ci bopp réew mi te moom itamit mooy jël dogal. Euh, jël kii dugal ko fii jël kii génne ko fii te gëm naa ne yi tamit euh, bi mu laata mu koy def xalaat na yooyu yëpp ba xam ne jafe-jafe du ci am ndax li tax jafe-jafe du ci am mooy état continuité la euh, man la ma waroon def ba ma nekkee directeur général Sonacos ci waajal campagne arachidière bi pour ne pas généraliser pour ne pas dire campagne agricole def nañu ko parce que rôle Sonacos ci biir campagne de commercialisation de la l'arachide muy traite bi bu buñ bëggee wax comme ni ko wolof yi di wooyee mooy euh, dem buti xaalis balaa campagne bee ubbi euh, loolu def nañ ko jamono jii ñuy wax ak yéen euh, ITFC nga xam ne mooy kuréel gi ñuy financer suñu campagne waxtaan nañ waxtaan nañu ak ñoom mm-hmm. ba ñu d'accord pour joxaat Sénégal quatre-vingts millions d'euros muy cinquante-deux milliards de francs CFA ah. pour campagne bi ñu jëm te comme campagne bi nga xam ne moom la ñu génn taxul woon mu baax lool ci Sonacos Sonacos dese loon na dese woon na ci ITFC lu tool ci million millions d'euros muy 26 milliards alors boo boolee 26 milliards yooyu ak 52 milliards yooyu da lay daal di jox presque 78 milliards yu nga xam ne war nañ ko mun a financer ci campagne bi ñu jëm euh, rax ci dolli fukki milliards yu nga xam ne euh, ak juróom ñu ngi koy war a jëlee ci. ci banque locale yi mhm. suñu partenaires yu mel ne BNDE yu mel ne LBA euh, boo ko boo ko boo ko totalisé euh, daanaka da ngay jege presque téeméeri milliards ndax am na yeneen fonds yu nga xam ne dañ koy jël di ko dugal ci camp donc loolu Sonacos waroon def def nañ ko ba pare maintenant bien entendu <clears throat> amatuma signature mhm. pour mën àggale loolu <coughs> mais loolu état moo koy toppatoo c' est le ministère c' est, le, la Sonacos en relation avec le ministère de la coopération mm -hmm. et le ministère des finances et du budget ñoom ñooy saytu loolu convention bi euh, terme sheet yi jox nañu ko xool nañu ko d' accord nañ ci dellowaat nañ ko partenaires financiers yi donc li ci des rek mooy ñu signer signer convention bi yaakaar naa loolu mën nañ ko mm-hmm. def ci lu nga xam ne du donc amul leneen li ci topp mooy waajal usines yi waajal usines yi pour ñu mën a euh, recevoir gerte gi ñu mën a réceptionner gerte gi loolu yi tamit euh, suñu service yi ñoo nga ca maanaam mooy bay bay fi ñu teg def def gerte gi mooy defaraat euh, gerbeur yi defaraat pont bascule yi yooyu yëpp liggéey la yu nga xam ne du jël temps donc ki nga xam ne moo moo moo moo mooy wuutu mhm. su ñëwee rek day jël liggéey bi fi ma ko mhm. bàyyi woon mu continuer daanaka balisé ngeen voilà mais monsieur le ministre teewul nag quand même Sonacos nekk ci ay jafe-jafe. Euh, ba tax na am na sax ñu njort nii boo moytul ñu privatiser ko ku ci mel ni Mamadou Lamine Diallo nee na sax gouvernement bi jël na engagement ci auprès du FMI pour ñu privatiser Sonacos est-ce que yow processus boobu nga fa bàyyi woon. <coughs> alors Sonacos euh, euh, mu ngi ci jafe-jafe. Hmm. mu ngi aju rek ci li ñuy wooyee jafe-jafe. ndax euh, loo gis lu nekk dañ koy méngale ak la mu nekkoon boo jëlee Sonacos bi nga xam ne moom la état bi reprendre en 2016 jële ko ci kim ko jaayoon mm-hmm. dugalaat ko ci gafakaam mu meloon booba en 2016 mënoo koo mënoo ko méngale ak ni mel tey boo laajee travailleurs yi boo laajee cadre fa nekk ñoo la di Sonacos mel tey moo gën fuuf na mu meloon ba mu nekkoon ci privatisation ndax Sonacos bi quand bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu jël ñun à de deux mille dix neuf. Euh, tey mu ngi def mën naa defar dawlin tey euh, mën naa defal euh, ràkkal tey mun naa defar aliment de bétail te loolu amu foon tey mu ngi defaraat vinaigre mu ngi defaraat eau de javel tey boo jëlee Sonacos boobu mu ngi existé na Jula Colon te bu njëkk amu foon tey Sonacos boobu mu ngi siñ ci Malem mu ngi Ida Mouride mu ngi ci yeneen ak yeneen ak Sonacos boobu nga xam ne euh, dix huit milliards de chiffre d'affaires la amoon en mille neuf cent en deux mille dix huit tey dernier exercice bi ñu ngi ci soixante douze milliards de chiffre d'affaires kon mënuñu wax ne Sonacos boobu yokkuwul maintenant am nay problème am nay jafe-jafe jafe-jafe bi ci gëtt bi ci ñaari jafe-jafe la am hmm. benn bi mooy léeg-léeg ñu am gerte léeg-léeg du am gerte kooku il faut que état bi tëral mécanisme bu nga xam ne lu mu ñàng ñàng ñàng at mu jot Sonacos dina am lu nga xam ne dina ko mën a fonctionner loo ba at mi jeex ñaareel bi aussi mooy jumtukaay yi dañu màgget ndax Sonacos bii nga xam ne dañ ko fusionné mu exister sous sa forme actuelle Sonacos boobu 1975 la ñuy wax. Mhm. xam nga nag nit ku juddu 1975. ba heure bi machine ya fa nekkoon màggat nañu alors donc ñaari jafe-jafe yooyu la am maintenant gouvernement bi ak euh, direction générale Sonacos ñu ngi waxtaan ak benn banque bu nga xam ne mën naa indi vingt milliards pour ñu yeesalaat kuréel yi loolu tamit usines yi usines yi voilà ñu yeesalaat usines yi euh, jéggal ma ñu yeesalaat usines yi ñooñu tamit négocier nañu ko ba def nañu première réunion bu comité crédit bi parce que lettre de garantie lañ doon xaar ci état état jox nañu léegi lettre de garantie bi ça fait deux trois mois suñu partenaire bi réunir na premier comité donc ki may wutu bu ñëwee day continuer processus boobu pour mën a normalement xaalis bi war naa mën a dugg ci gafa kay Sonacos. mooy li la yóbbuwoon Ghana. mooy li ma Bank ah, voilà dama bëggoon def. Euh, mhm. def publicité. Ah, <laughs> mais comme yow da ngay da ngay topp. Mhm. mooy li ñu yóbbuwoon Ghana effectivement Afrexim Bank comme tudd nga ko. d' accord nañu pour joxe vingt milliards. pour équipement yi pour équipement yi mais loolu nag phase d' urgence la parce que Sonacos pour jagal ko téeméeri milliards ak nangam lay laaj. Mhm. loolu benn pàcc la boo xam ni moo la war a génne. voilà mais lii nag mooy pàcc bu njëkk bi. mais peut être que boobu kon dañ leen kon privatiser. privatiser non non dama lay wax rek li nga xam ne man moom laa ah, moom laa xam. Mhm. donc ñaar fukki milliards euh, mu ngi ñëw jàpp nañ dana agsi balaa at mi di jeex su ñëwee ñu tàmbali yeesalaat usines yi mieux. la tutelle muy ministère de l' agriculture ci compactu Sénégal bi mu am ak BAD ak partenaire au développement yi bindal na ci Sonacos cinquante milliards boo ko boolee ak vingt yële mu nekk soixante dix milliards yu war a ñëw pour yeesalaat kuréel yi euh, yeesalaat euh, usinu usinu Sonacos yi alors bu état di def loolu nag man jàpp naa ne nekkul ci tànki privatisé euh, ça ne veut pas dire en tout cas personnellement moi je suis un libéral musuma ko nëbb gëm naa ne daañ toll jamono bu nga xam ne war nañ mën a ubbi capital bi à des privés privés maintenant nag l'État doit garde la même mise parce que c'est un secteur stratégique mm -hmm. parce que secteur bi nga xam ne moo yore campagne euh, arachidière moo yore gerte gi warul mu ngi mel ne comme ndox wala comme euh, non comme Sénélec wala comme leneen courant ak ndox warul génn ci état état état état daf ci war a majoritaire. surtout jamono joo xam ne président nee na dañu war a gagner le pari de la souveraineté. alimentaire lu mel euh, gerte gi quand même bu ñu ko. ba xam nga gagner le le pari de la kenn mënul gagner le pari de la souveraineté alimentaire bis bu nekk ma leen ko. Mhm. te fexewoo ba Sénégalais yi dama lekk ceebu jën. te kenn mënul lekk ceebu jën te doo wax dawlin. Mhm. te dawlin bi nag daa bu dawlin bu ci gën bëgguma def publicité. te loolu ñi nga xam ne ngeen def. mais cher na cher boo xam ne aussi. le sénégalais. comme on dit lambda gafam. waaw waaw waaw loolu loolu nangul naa la ko parce que effectivement il faut nga dem ci grande surface yi. pour nga mën a am diwlinu gerte. Euh, ñun arrêté nañu di dugal produit diwlinu gerte ci biir marché bi parce que li tax mooy yeneen diwlin yi moo gën a yomb. te nit ñi boobu la ñuy jënd. mais nag réew moo gis tamit doole yamul am na ñu nga xam ne yàlla may na leen ñu mën a jënd diwlinu gerte te xam nañ aussi njariñu diwlinu gerte te ñu ngi koy jënd. ci biir grande et moyenne euh, surface yi. mais premier problème bi nga wax léegi. Euh, bala nga parce que dafa développé je crois que defaraat usines yi. Hmm. gis naa ne sax peut moo gën a yomb. parce que hmm. il suffit que ngeen am moyen. mais pour ngeen am gerte gu doy. Hmm. foofu peut-être problème la. parce que li ngeen bëgg a jëndee gerte gi aussi arrangé wul béykat yi. non non xam nga léegi amatul problème mu en tout man daaw. daaw muy campagne bi mu moo mujjee def. Euh, bi gouvernement bi bi Seynia. juróom fukk ak juróom la ñuy jëndee gerte gi. man ba may tàmbali juróom benn fukk laa tàmbalee juróom benn fukk ak juróom topp marché bi bu marché bi yokkoo ma yokk parce que quand même c' est de l' économie la loi de l' offre et de la demande. Hmm. su fekkee ne offre bi dafa ndaw demande bi bari. am na marché bi mooy déterminer. mais état bi moo joxe seen prix yi mais gars yi jaayatuñu. ñu ñi état bi non non dama lay dama lay expliquer comment ça fonctionne. ñun bi ñu état joxe loolu ñun societé lañu xam nañ ne bu dee njëg yi duñ mën a am gerte. waaw ñun dañoo yokk ba quatre cent cinquante. daaw ah jëndee dañ kilo gerte quatre cent cinquante franc. donc nekkatul problème mu prix. Mhm. parce que li tax nekkatul problème prix mooy marché bi moo la koy. moo la koy moo la koy imposé. dëgg comme marché bi ñu ko imposé ñu nangu ko jëndee nañu gerte daaw juróom-ñeent fukk loolu mus fi. mus fi mus fi am bon maintenant il faudrait qu'il y ait am ay mécanisme derrière. parce que bu fekkente ne euh, une entreprise comme Sonacos dafa jënde loolu. xam na ne le prix économique de rachide parce que dañ koy calculer mm. CNA li muy def pour mu déterminer euh, njëgu gerte gi danaan waa léegi bari euh, bari lu tonu dëwlin ñaata lañ koy jaayee Rotterdam euh, tonu tourteau soja comme du ñu valoriser wuñu tourteau arachide ñaata lañ koy jaaye tel ci ñoo daal di xool baykat bi bu bu hectare bi ñaata la ciy dépensé ci jiw ñaata la ciy dépensé ci machine ñaata ñaqam calculer ne pris économique bi nangam la mais prix économique boobu en tant que politique. Hmm. day jafe. pour que baykat yi euh, nangu ko. Hmm. te itamit dañ leen di comprendre parce que kenn ko nekk li ngay li ngay li ngay li ngay bay. Hmm. li ngay li ngay dundee euh, li ngay ñaq dangay bëgg ñu rémunérer la ko. ci nu nga xam ne moo tax ma ne léegi amatul affaire prix. parce que Sonacos war na mun a euh, egg ci pris yi nga xam ne. mooy pris yi marché yi imposé mais nag il faut que état. nekk si ginnaaw pour jàppale ko mm-hmm. parce que loolu état di def ci ginnaaw kooku ci paysan bi la jëm mm-hmm. kooku ci paysan la jëm parce que tey paysan bi su fekkente ne gis nañ ne gerteem ñeent fukk la ko la ko dikk wala ñeent fukk ak juróom wala juróom fukk mu jaayi téeméer mais dugal na juróom fukk ci poosam. dëgg la donc te te lépp lu nga xam ne état def na ko pour béykat bi rek ñàkk ko. Mm-hmm. léegi la ngeen di xaar ci état kon mooy régulation. du xam nga ré xam nga xam nga xam nga marché. am réew dañ koy réguler euh, ñun libéraux yi dañ naan il faut mieux réguler socialiste ne il faut plus réguler <laughs> bon du ma dugg ci. <laughs> <laughs> du ma dugg réguler bi rek déjà moom. non il faut réguler réguler bi rek déjà socialiste bu la. non non non non non non ah. mieux réguler les socialistes dañuy réguler tous azimuts ñun mieux réguler bu ko jaree. waaw bu ko jaree tey ji bu ñu demoon ba gis ne benn entre ñaari entreprise ñu ngi def concurrence ñu dem ba gis ne. benn entreprise bi mu ngi bëgg a rey beneen bi mais dañuy jàppale entre bi ñu bëgg a rey pour que mu parce que bu dul loolu monopole mu la ñuy créer te monopole baaxul bon bref loolu parenthèse la donc réguler réguler mécanique mooy xool bay nañu nangami tonne de de de nangami tonne gerte usines yi Sonacos mënul ñàkk pour mu kii point mooram mënul ñàkk cent mille tonnes mm-hmm. masalan ñu fexe fexe da à à l'état actuel ba jox Sonacos cent mille tonnes de gerte ba yeneen yeneen euh, euh, huileries yi mun ñoo ñàkk dàngami tonnes ñu fexe ba jox leen su ko defee ñoom daañ mën a fonctionner toute l'année li ëpp nag ñu jaay ko. mais est-ce que huileries yi rek parce que daaw wax nga ko léegi amu leen lu dul vingt deux mille tonnes. Mm-hmm. am na ñu ni sax looloo tax li ngeen nar ci gé te diwlin bëriwul. Mm-hmm. ba loolu moo indi jafe-jafe entreprise bi. Mm-hmm. est-ce que au est-ce que du lu ñu ibbi marché bi à des chinois. nit ñi li dafa am une libéralisation sauvage ñuy jënd gerte bi muy génn réew bi mm-hmm. est-ce que du loolu mooy problème bi. xam nga xam nga Sonacos moom euh, euh, fi mu toll ñuy wax dëgg yàlla euh, nekkul ci jafe-jafe sauf ñaari point yi nga xam ne wax naa ko bien entendu soo amul gerte doo am trésorerie yi mm-hmm. mais Sonacos a complètement jugulé les cycles de perte. Mm-hmm. moins euh, sept milliards la ñu pertoon en deux mille dix huit deux mille dix neuf ñu am bénéfice deux mille vingt ñu am bénéfice deux mille vingt et un ñu am bénéfice deux mille ñu am bénéfice quatre ans successifs yu nga xam ne nos comptes sont sains certifiés par. Euh, malgré euh, les vingt deux tonnes. mal, non vous non les tonnes. c'est pour le bilan non mhm. les tonnes c'est pour le bilan de tu okay. as c'est pour le bilan de 2000 mais les bilans yi ñu fekkee 2019 2020 2021 2022 1 milliard million millions 500 mille donc kenn waxatul perte Sonacos amatul défaut de payman parce que wax naa léegi ne ITFC moo ñuy lebal xaalis heure bu ñu ko waree fay fay nañu ko Sonacos amatul euh, suufam bu des ci benn banque parce que bu njëkk Sonacos da daan jël hypothéqué. da daan tayle voilà tayle tayle tayle tayle suufam ay suufam patrimoine. Hmm. tayle suufam. Hmm. pour mën a leb xaalis tey ku ñu amee loon état jàppale nañu jàppale nañu suñu bopp fay nañu ba tey suuf sépp dellusiwaat na ci biir ci biir hmm. Sonacos donc mënuñu wax ne Sonacos est en difficulté maintenant problème mu trésorerie rek. il faut faire de l'activité il faut commercer pour nga am trésorerie mais, mais, mais nos comptes et la signature de la SONAC est crédible ñu jeexal ci loolu kon daal privatisation dalal nga xelu Sénégalais yi kenn jëmu man daal jàpp naa ne jàpp naa ne jàpp naa ne bu fekkente ne ñuy dogal parce que nag euh, du man maay dogal ñuy dogal daal man buñ ma dégloo d'accord naa ci ay capitaux privés dugg ci dugg ci yëf yi mhm. amener de l'argent frais mais l'État doit rester majoritaire d'accord loolu leer loolu am na solo monsieur le ministre dañuy dugg si beneen pàcc bi nga xam nii gouvernement bi la parce que wax naa ni léegi on a également invité le ministre Sonacos romb na mais c'était bien le bilan on a fait <laughs> <laughs> le bilan de la Sonacos c'est bien mais gouvernement bu bees à quatre mois des élections mhm. gouvernement boo xam ne dañu ne remaniement la on se finalement avec la quasi totalité des anciens membres nekkaat ci gouvernement finalement quelle la pertinence de ce remaniement. xam nga xam nga yéen bon yéen ay taskatu xabaar ngeen. dañoo bëgg a comprendre. non yéen ay taskatu xabaar ngeen yéen euh, yéen no président Macky Sall déggu leen ko mu ne damay remanier. wala damay réaménager da ngeen xëy xëy dégg ko rek mu ne dissoudre na gouvernement bi. waaw ah, formation de nouveau gouvernement. formation d'un nouveau gouvernement. voilà yaa ngi dégg d'un ngi doon xaar. déedéet mais attends non. avec le même premier ministre. non non formation non déedéet non ba mu dissoudre <laughs> dafa reconduire. le premier ministre c'est d'ailleurs xam nga gouvernement souvent bu ñu koy wax euh, les nouveaux surtout nouveau gouvernement dañuy xaar. Euh, bu premier ministre bu bees wala nang mais bi moom dafa annoncé la couleur. Mm-hmm. ne am monsieur Amadou Ba. est reconduit pour euh, voilà dans ses fonctions de premier ministre donc finalement réaménagement là ah waaw il faut appeler un chat parce que les fondamentaux ouais. ou les fondements du gouvernement hmm. sont restés hmm. en place bon il y a quelques jeux de chaises musicales surtout au niveau des ministères de souveraineté diw jóge fii dem fii diw jóge fii dem fii et cetera mais rare entrée. Euh, de rare entrée. entrée. mais quand même quand même quand même comme je le dis il a quand même pour moi renforcé euh, euh, le critère expérience du gouvernement. Euh, avec euh, votre modeste euh, avec notre modeste personne. Mhm. et celle de Momar Samb. Momar Samb xëy na amul expérience gouvernementale. Mhm. mais kenn nattable ne am na expérience politique. politique waaw. yaa nag ku yàgg. ku yàgg ci ci mbir yi la et puis a insufflé quand même. ak Daouda Dia buy mu waaw voilà et puis insufflé na aussi. Euh, benn dose de jeunes de de jeunesse au gouvernement les Thérèse Faye les Antoine Beng. Oui, quand même sont des jeunes. et des jeunes qui en veulent et des donc je crois que changé wul fondement yi mais teg na lu nga xam ne war na gën a mën a booster liggéey bi pour que liggéey bi gën a mën a gaaw parce que xam nga. booy gérer réew di ko gérer ba ci cat li da ngay bëgg nag accélérer pour terminer en beauté et je crois que c'est un peu ça sans pour autant remettre les les les fondements, les fondements remettre en cause les fondements mais, mais, du pouvoir parce que loolu bu ko defoon tamit on est à la veille d'une élection présidentielle capitale bon bu ko defoon mën naa indi yeneen. mais mais les profils tamit ñu bëri yaakaar nañ ne que c'est un gouvernement politique. am na sax ñu ni gouvernement de campagne. non na sax ñoo xam ne yegg nañ sax ci ni c'est un directoire de campagne du euh, candidat Amadou Ba. waaw gouver ak profil yi nga wax fii sànq. waaw gouvernement yàlla luy naqaree wedd. waaw gouvernement gouvernement bi gouvernement de mission la et de combat. à le terme officiel. loolu ngeen waxoon ci bële ah euh, <laughs> utilisé par le chef non bële dañu gouvernement de combat. bi yokk na ci mission. combat. mais combat parce que écoutez mais li ñu wër dafa bëri. li ñu war a combat dafa bëri. Hmm. Euh, bon xañ na daan ci. daan ci daan ci dellusiwaat. mais gouvernement bi euh, bon. mais par exemple c'est normal cest dire que tey bu ñu defoon man li ma gëm mooy. à la veille d'une élection présidentielle. Hmm. mais forcément il faut faire entrer de figures politiques. qui peuvent. euh, apporter quelque chose qui sont représentatifs qui son peut-être un peu plus connus Par qui exemple, sont ceci, qui sont cela maintenant maintenant attends je je, je termine oui, bien sûr. cela ne veut pas dire que euh, euh, ñi fi nekkoon doyuñu mais encore une fois su fekkente ne da nga nekk da nga nekk ci ci ci état jëm ci ay élection mais écoute parti bu nekk xamal muy wut même ñi nekk ci opposition di wax au pouvoir. même ñi nekk waaw. waaw lu bëgg jël nguur gi toog. <laughs> waaw mais ñun ñu ko yor duñ jëm a toog. mais mais mais Momar xam le problème. te li ñu def c'est pas illégal dama lay compléter. Ah, ah. dafa wax loo xam ne ni. Euh, par rapport à la pertinence du gouvernement yow yow bu ñu jëloon ce cas maanaam ñu mën a xalaat ni c'est un gouvernement de campagne électorale. ce mm-hmm. cas en quatre mois. Mm-hmm. ñu jëlee la Sonacos indi la ministre des collectivités. Mm-hmm. en quatre mois ba la ngay jël service nemmeeku say service de démembrement. mais affaire bi jeex. vous man affaire bi non man xam nga man boo jëlee sama cas. yow sa expérience politique non man man c' est un mauvais exemple bu moom nga jël. parce que man <laughs> non c' est un mauvais exemple parce que man moom xam naa luy gouvernement. c' naa luy ministère. man soxla maa jàng. parce que ministre moom dafay compter sur une équipe. ministre démarche la am vision la am la am il définit la vision il définit le cap les équipes techniques sont la pour mettre en en œuvre donc amuñu. lu ñuy jàng ci ñu ñuy gérer ministère et donc côté boobu et puis et puis comme li ma ko wax c'est la continuité ñëw naa fekk euh, mon frère Mamadou Talla que je remercie au passage mm. euh, pour l'excellent bilan l'excellent travail qu'il a fait à la tête du ministère des collectivités mais travail collectivités locales yi waxuñu loolu de. mais mais attends non si <laughs> non non même les mm. travailleurs. la preuve ils sont ils ont félicité le ministre Talla. vous avez vu leur communiqué dañ ko bind donc. Euh, xam nañ moom ne lim ci waroon taxawee euh, taxawee taxawee na ko ci bon maintenant loolu daañu ci dellusiwaat xaj na hmm. avec. Euh... valable avec euh, Thérèse avec Daouda Dia. en alors le fait qu'en quatre quatre mois en quatre mois. da ngeen ñu tàmmaloon ah les ministres. Hmm. dans nos gouvernements successifs. ministre bu ñëwee day jël temps nemmeeku ak ses. oui mais d'accord xam nga yooyu yëpp c'est des. mais en quatre mois mais xam nga man tey man danaa dem visiter ji say ay services. Hmm. mais c'est pas pour apprendre. damay dem pour xool l'état dans lequel ces services là sont mhm. lan mooy seen problème mu oto lan mooy seen problème mu loge euh, locaux lan mooy seen problème leneen lan mooy seen problème mu leneen et cetera parce que tamit le contact avec le personnel avec les cadres c'est important et man li ma gëm mooy terrain dëgg gis nga rapport baax na trop euh, fonctionnaire yi mën a jo bind rapport ma li ma gëm mooy dem xoolal sama bopp gisal sama bopp parce que ci laay gaaw a gën a mën a comprendre euh, ci laay gaaw aussi gën a xam lu may def mais ne vous inquiétez pas état continuité la gis nga fi dool nii la grève des des travailleurs des collectivités am na fu ma fekk dossier bi. Hmm. ministre bàyyi ko fa mais damay ñëw jël rek continuer du ma du ma jéem a la roue si la roue existe pourquoi essayer de la réinventer. mais dossier boobu moom xanaa da nga koy régler rapidement parce que un xam nga problème bi en tant que président du conseil départemental hmm. de Kébémer. miin nga ko et problème boo xam ni. boobu ba léegi état bi mi ngi ko teg ci il faut que ñu recenser. dafa yàgg les travailleurs du collectivité locale nit ñi jàpp ñu dilatoire la. non du xanaa peut-être d'ici présidentiel. non non non non du di ko régler rapidement xanaa. non du dilatoire recenser nañu le personnel concerné. Hmm. tey euh, ñu ngi ko séddale ci ñetti panier. panier vert mooy ñi nga xam ne ñii moom fala budd seen i dossier mat na xool nañ leen càmbar nañ leen ñii moom ñu ngi ci biir fonction publique locale. Hmm. am na maintenant panier panier bleu bu nga xam ne seeni cas dañuy xool est-ce que dañ leen ni basculer ci panier vert bi wala duñ leen ci basculer mais ñoom tamit éventuellement mën nañoo dem ba basculer ci panier vert bi ak un panier rouge ñu nga xam ne amuñu kayit wala bokk parce que et puis il faut comprendre que ça sont des employés des collectivités territoriales. Mm -hmm. ce ne sont pas des employés de l'État central. mais des employés de donc recensement bi quand même ça concerne 557 collectivités locales. mais le problème c'est qu'en 2013 il y a eu quand même leur statut qui a été revu. ba ñoom yaakaar nañu ils ont le même mode de gestion et les même mêmes droits mais, mais ils que les fonctionnaires. Ils, si c'est la vérité pour pour l'essentiel ils ont les mêmes d'ailleurs garab la ko indi dañu waxoon dañu wax dañu dañu wax ne. ñoom bu ñu yokkalee fonctionnaires yi dañ leen war a yokkal mm-hmm. l'État est d'accord bon maintenant nag euh, ñi leen war a yokkal mënuñu ko parce que collectivité locale ñoo leen war a yokkal ndax ñu may employé collectivité locale mais ñooñu mënuñu ko donc il faut amuñu moyens yi comment ah, faire mais voilà maintenant nag c'est ça qui fait que il faut maintenant ñu waxtaan il faut ñu waxtaan ak euh, syndicats yi commencé nañ ko sama prédécesseur commencé na ko il ñu waxtaan ak monsieur le premier ministre il faut ñu waxtaan ak pour ñu xool quelle est la meilleure formule pour réglé ce ce problème maintenant urgence bi am parce que j'ai l'impression que monsieur ministre Momar daf ko wax léegi mhm. xam nga grève bu yàgg te dafa impacté ci Sénégalais yi bien surtout moment bi nga xam nga au quotidien xam nga quand j'étais de la santé je savais que y avait beaucoup de travailleurs municipaux ñu nga xam ne ay municipalité ñoo leen jël ñu nekk ay sage-femme nekk ay infirmier nekk ay médecin nekk ay ñeneen ak ñeneen donc tey ñooñu suñu gréwee dina am problème ci ñi nga xam ne dañu war a accoucher par exemple ak ñi nga xam ne dañu war faju forcément surtout dans des villes mm. de grande villes comme comme comme comme Dakar mais jàpp naa ne ak lu ci mën di xew dafa yàgg mais ak lu ci mën di xew mm. en tout cas man sama style de travail mooy waxtaan wax naa ko maa ngi koy waxaat fii waxtaan waxtaan daal lu mënul régler pour man xeex du ko régler gerew du ko régler waxtaan bi nag daañ ko door suba parce que suba incha allah bu fukki waxtu ak benn jotee dina recevoir intersyndical bi pour ñu ma xool li ñu jotoo na wax fu ñu ci toll pa paa euh, tànk yi nga xam ne war naa ko jéggi pour ñu dem fair d'autres étapes ñu mën a àndandoo jéggi tànk yooyu mais loo ci mën di gis rek na nañu jiital suñu xel maanaam bu ñuy jiital rek suñuy bëgg-bëgg bëgg-bëgg bi moom kenn ku nekk am na droit am bëgg-bëgg mais na ñu jiital suñu xel xool lu réew mi àttan lu réew mi àttanul kañ la ko àttan nan la koy àttane nan la koy defee ñu àndandoo ci waxtaan ci ba tëral man nag maay seen jëwriñ tey man la président de la république teg ci bopp ministère boobu bon euh, lu ma mën parce que comme li ma wax ñun ay généraliste yaa ngi ma doon wax loolu léegi ci gerte mais fi doon man. léegi collectivité local lay wax. maa ngi ci collectivité locale. yaa ngi ci maa ngi maa ngi ci lu bari. <laughs> maa ngi ci bari état état civil beeg. maa ngi ci collectivité locale yeeg maa ngi ci aménagement du territoire. bu nga xam ne lu lu lu am solo la. donc yéex a ñëw ak euh, ñëw léegi nit daal man daal je suis un soldat de la république. je suis un soldat du pays. ki nga xam ne moom la yàlla may légitimité. muy président de la république moom mooy séddale ci légitimité légitimité bi ko population bi jox mooy jël ne Modou Diagne Fada teg naa la fii loolu nag dinañ ko dox dox ko. bu mu mën xëy na boo leen ja boo leen recevoir suba. Mm-hmm. sentiment ñoom bi ñu amoon ñoom travailleurs yi ba léegi. Mm-hmm. jàpp ne gouvernement bi dafa indifférent mm-hmm. maanaam mayu leen nopp. xawa a doyadil seen préoccupation xëy na mu dañ ci ñoom. waaw en tout cas man euh, euh, invité woon naa leen euh, invité woon nañ leen bi ñuy def passation de. de service ñëwoon nañu joxoon nañ leen kàddu ñu wax dinaa leen dalal suba ak jàmm bu ñu bu ñu yeewoo pour ñu mën a continuer waxtaan bi après maintenant man dinaa rendre compte samay kilifa muy le premier ministre ak le président. mais ñoom nee nañ premier ministre leen premier ministre agenda <laughs> politique am. non xam nga foofu tamit xam nga foofu tamit quand même quand euh, à la décharge du premier ministre. xam nga premier ministre mënul recevoir. Euh, recevoir euh, syndicat yi te jotul rapportu recensement bi ñu waxoon te bu fekkee ne comprendre na recensement bi bi mu pareek léegi yàggul bu baax donc bis bu jotee rapport boobu mais dina woote réunion toog ak ñoom waxtaan parce que moom moo leen ko moo leen ko digoon loolu nag daañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko accéléré pour que man na toog bi am rek parce que toog moom euh, ci la solution mën a génne mais pour man. Hmm. reconduire naa soixante douze heures reconduire naa soixante heures. du loolu mooy. mooy ñoom kay cent vingt la ñuy def. waaw mais loolu. cent vingt heures la ñuy def loolu yëpp parce que ñoom tamit ay sénégalais lañ comme ñun ay patriotes lañ comme ñun. Hmm. kenn gënu leen bëgg réew mi. man j'ai dama liggéey ak Sidiyee Ndiaye bi ma nekkee santé. yàlla na ko yàlla yërëm. amiin maa ngi profité waat encore vraiment di occasion bi di ko rendre hommage. Hmm. parce que nit la ko nga xam ne nit ku. nekkoon à cheval sur ses principes. Mhm. mais il était aussi un responsable euh, euh, un syndicaliste responsable. mooy mesuré. waaw un syndicaliste ça du dem mukk ba bëkk mi. Mm, alors donc sérieux yàlla na ko yàlla yar donc. xam naa un peu. problème il a porté ce combat quand même. non non il a porté le combat de la fonction mm-hmm. publique locale. Mm-hmm. tey fonction publique locale bu ñu koy vraiment en grande partie. Mm. nañ ko ko nañ ko ko nañ ko ko delloo. parce que lu mu yàgg gëm la. lu mu yàgg def la maintenant nag problème bi man xam naa ko en tant comme ni nga ko waxee en tant que président de conseil, conseil départemental euh, samay agent dañ doon ñëw di ñu wax problème donc am na lu ma ci xam maintenant nag euh, nañu toog waxtaan daal hmm. nañu toog waxtaan est-ce yeneen axes prioritaires yoo xam ne ni au niveau de votre ministère doo ah ni soxal na la aujourd'hui non déjà benn soxal na ma c'est la grève des des travailleurs là il faut euh, arriver à un apaisement et le régler avant la présidentielle. il faut arriver à ah mën nga jox. il xam nga ne man man man man man man man. problème bi dafa yàgg. mais moom daje gars yi demee. xam nga man xam nga nag xam nga nag man. demee moom dañu jokkante bon j'étais à la santé. qui mhm. euh, bu nga xam ne. Euh, gars yi dañ daan beaucoup de tension. dañ daan dañ daan bouger mhm. mais ba tey jii tey ña fa nekk yore syndicat samay xarit lañu. dañuy wootante téléphone di masla di wax parce que on a toujours eu des rapports sincères chacun défendant ses positions mais aussi chacun respectant l'autre et kenn ku nekk am parole man j'ai une parole et ma parole euh, bu ma ko xasee wax dama koy def loolu laa gëm man damay sàmm sama kàddu moo tax mënuloo avancer ci yenn mbir yi te toogoog waxtaan ak ñi nga waxtaan waxtaan yëpp mais man bis moo taxee ci rajo bi ni nangam ji mooy xew c'est parce que xam naa ne. ñun ñëpp daal dañ jonkan suba jonkan <laughs> monsieur de la Raccorde yan mooy sa yeneen axe prioritaire. au niveau alors mais xam nga dañuy wax ministère des collectivités territoriales. Mhm. Euh, mais il faut aussi rappeler que c'est le ministre des collectivités locale de l'aménagement et du développement. des territoires vous savez. euh, l'aménagement c'est le Sénégal euh, euh, l'aménagement c'est c'est c'est c'est la prise en charge de l'espace mmh. tey euh, réew mi yëpp cartographié nañ ko gis nga fii ba deux mille trente cinq fu war a am tali xam nañ ko fu war a am hôpital xam nañ ko fu war a am lii xam nañ ko fu war am autoroute xam nañ ko fu war a am et cetera te loolu mooy vision loolu mooy cap bi président Macky Sall euh, taxawal nga xam ne suba ak lu man di xew vision bi moom taxaw na par exemple tey y un tracé de la route Aérelao Linguère tracé boobu ça existe maintenant après il faut aller chercher le financement ak leneen ak leneen ça mën nañ la tëralal réew mi nu nga xam ne daal lu fiy route lu fiy infrastructure ANAT l'agence là l'agence nationale euh, de l'aménagement du territoire un travail dans ce domaine c'est vrai excellent alors mhm. donc j'ai reçu le directeur général de l'ANAT qui qui qui nous a présenté ce qui est en train d'être fait mhm. donc l'aménagement pour moi c'est le pays ñoom dañuy def banaan la on connaît les zones de production fu ñuy fu ñuy mhm. fu ñuy jaayee netatu fu ñuy jaayee euh, euh, euh, mango fu ñuy nangamee gerte fu ñuy nangam nga xam ne yow bu fekkee ne xam nga ne zone de production bi fii la daf lay aider yow muy gouvernement pour nga xool noo taxawalee industrie de transformation te que loolu yëpp loolu yëpp mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci mu ngi ci carte c'est vous dire que les collectivités locales sont importantes parce que mooy gox yi ak gox goxaan yi c'est les cinq cent cinquante communes que nous avons dans ce dans ce pays mm. les quarante six euh, département. département ou ville que nous avons dans ce dans ce dans ce dans ce, pays mais ak i seen i jafe-jafe. xoolal tey boo ñëwee ñëwee la le l'objectif c'est d'informatiser les centres d'état civil partout au Sénégal. mi ngi bëgg nga xam ne yow mais non y a commune communes qui ont démarré. Ouais. ma commune Darou Moussi. qui est dans la région de Louga dans le département de Kébémer tey boo man boo ñëwee su ma soxlaa suma suma extrait de naissance mhm. bu ma joxee benn élément bu bokk ci extrait de naissance bi rek ñu génneel ma sama extrait de naissance mais monsieur lii yëpp c'est bien beau hmm? mais Sénégalais yi njàkkare bi ñu am mooy seen gouvernement bi en quatre mois comme ni ko Babacar waxee <laughs> nekk un gouvernement uniquement de campagne un gouvernement politique d'abord à travers les profils profil bu mel ni sa bos uh-huh. profil bu mel ni yum ki hérite des forces armées. Euh, politique bu euh, profil bu mel ni Lat Diop. on sait ce qui s'est passé à Guédiawaye avec la perte des locales et des législatives. ku mel ni Doudou Ka. ñu jox ko économie. renforcer ko au niveau du Ziguinchor. ku mel ni Thérèse Faye wax ko ko léegi. c'est-à-dire le personnel a un profil marqué tellement politiquement. que Sénégalais yu bëri dañu am. njort ni boo moytuwul politique ngeen di dëkkee. surtout nag ah. le premier ministre. xam nga boo être mon ami. Ah. mais nee na day def tournée économique mais tournée yi. Ah, c'est très politique sa kii la xarit la mooy sama la. yàlla xam na ko waaye. xam nga ce qu'il fait c'est des tournées quand xam nga man li ma li ma jaaxal ci euh, journaliste. mais Modou Diagne Fada c'est un politique ça c'est connu. oui. mais Modou Diagne Fada a fait ses preuves qu'il était aussi un excellent ministre. boo demee environnement nga laaj leen ñu may déglu. boo demee santé nga laaj leen ñu ngi may déglu. sans compter le fait que j'ai été le premier ministre de la de la jeunesse donc oui je suis en politique mais pas seulement en politique. mais c'est valable mois, pour la la Diop mais attends. ba moytul agenda politique bi. ëpp solo l'action vraiment gouvernementale. xam nga wax nga léegi ba tudd les visites du premier ministre Amadou mais est-ce que ce n'est pas normal qu'un premier ministre qui est oui il faut l'avouer qui est candidat aussi. c'est un premier ah. ministre mais mais il y a quand même benn flou bu mais attends non non non mais attends entre ces deux. non amul flou. amul flou premier ministre muy France muy beneen dëkk. si est politique il est politique. bu campagne jotee day dem campagne pour nekkaat maire bu dee France pour nekkaat lii wala pour nekkaat laa on peut citer. énormément d'hommes politiques français euh, qui ont gardé leur leur leur euh, leur mais xam nga bokkul attends attends attends mais attends attends attends mais attends attends attends je termine. il vient d'être euh, nommé ou en tout cas désigné candidat de Benno Bokk Yaakaar. waaw mais dama mais dama mais en même temps aussi les premiers ministres. Mm, oui premier ministre nag war am droit génn inaugurer centre de santé génn inaugurer tali. Mm. on est en train de récolter les arachides. mu génn xool toolu. am na que doon gën mu génn. non mais non non non non. ne yi da koy def avec les formes. parce que non kenn kenn. boo déggee man la nax sénégalais yi cest dire li tournée économique la alors que ça politique mais tournée boo xam ne boo demee li gën a fës c'est des rencontres politiques. c'est la remise de fiches de parrainage. ah ah ah ah, ah, ah si si si. a des dossiers brûlants. attends xam nga xam nga man mii. c'est ça ma xam nga man mii. di ministre de la République. su ma demee Saint-Louis su ma jëlee suba teel gi. ak ngoon gi heure bi nga xam ne état bi moo ko moom ma dem seeti ay infrastructure guddi gi maa moom sama bopp su ma neexee ma toog ak ku ma neex waxtaan ak waxtaan ak. def politique. wax pour wax def politique bien recevoir say xarit waxtaan nañu am def politique. le premier ministre je crois que c' comme ça qu'il faut le comprendre bu ñëwee bu ñëwee parce que man j' étais dans la tournée. Mm-hmm. mais demuma à Louga à Louga demuma kokki gis premier ministre yëkkati ay fiches de parrainage joxe demuma euh, ànduma ak moom Potou. gis mu yëkkati ay. pare na jox di ko jox. waaw non dama ne non non gisuma ko mais gisoo non loolu benn image sax d'ailleurs du la ko wan. parce que kenn amul y' a pas une opération de dajale dajale parrainage dans cette euh, dans cette tournée maintenant qu'il soit en contact avec les populations mais loolu loolu loolu loolu c'est c'est normal. bon maintenant tu me diras toujours que ñu wolof fi wax wala sax da ngay yattaale boobaale mais loolu c'est pas méchant. li gën a li gën a loolu. Euh, ñuy wax nii mooy dafa coïncider ak. Euh, parti opposition les leaders de l'opposition dem ci terrain bi di wuti parrainage. ñu gis ni ñoom ñu ci bëri ah bu nekkoon kenn sax nga mën a comprendre parce que ñëpp dañu leen di bloqué dans leur tentative rassembler seen parrainage. alors que le premier ministre xam nga. moom mi ngi déroulé de manière. Euh, très calme quoi non non no non non non c'est-à-dire que xam nga foofu tamit il faut préciser. tu as le premier ministre. le, le Premier ministre est candidat non defal nag mais non mais tu as d'abord dit le Premier ministre le Premier ministre ce n'est pas mon grand frère Khalifa Sall le Premier ministre ce n'est pas mon grand frère Gakou c'est le Premier ministre maintenant que, comment on peut jeter un Premier ministre police du ko escorté gendarmerie du ko escorté gouverneur du ko escorté. donc calculé alors mais non y' a pas de calculé. non c'est très mais cest sa chance. non non non atu boobu mais attends atu boobu la c'est nekko rek. mais monsieur le ministre euh, monsieur le ministre. bàyyi quitter le poste de premier ministre. non dès lors que jël nañ ko désigné nañ ko candidat de Benno Bokk Yaakaar. ça aurait été euh, mieux en tout cas plus clair visibilité bi. man bu fekkoon mu génn primature. Mm. xam campagne pour pour le président de la République euh, le président de la République ne m'a pas consulté. Mm. ba xam dafay maintenir Amadou Ba comme premier du ko maintenir mais bu ma consulté woon si ma ne ko maintenir ko xam nga lu tax. Mm. gis tant que c'est pas illégal. tant que yoon terewu ko voilà tant que yoon terewu ko tant que yoon terewu ko ça peut se faire on est quand même dans le cadre d'un pays dans le cadre de la république suñu limite mooy la loi su fekkee ne loi bi dafay teree candidat mu nekk premier ministre ma ne c'est la loi on le fait mais la loi ne l'interdit pas donc nit ki nit ki war na mën a nekk premier ministre nekk candidat parce que ça le renforce a hmm. à supposer que ñu ne Babacar Dione lañ def premier ministre hmm. waaw léegi moom Euh, et candidat. non non Babacar non Babacar peut ne pas non bu ma toppee ce ce ce raisonnement. Ah, ñu ne nañu jël keneen def ko premier ñu def Babacar Dione premier ministre. Babacar Dione téggawul ak Amadou Ba mi candidat bi. Mm. waa léegi Babacar Dione moom lu candidat bi gas. Mm. Babacar Dione suul. Ah. bu bu kii di xëcc jëm ndeyjoor kii di xëcc mais non là ce n'est pas dans dans de la République d'abord c'est interne qui fait d'abord voilà donc man je préfère que ñu boole ñaar ñaar yi mm-hmm. mu doxal parce que loolu tamit mooy logique nit doo ko jiital pare di ko affaiblir parce que bu ko defoon nam da nga def ni ah waaw moom da ko jiital ba pare waaye dafay gori tànkam d'abord d'abord te loolu ce n'est pas efficace monsieur le ministre d'abord comparaison fait pas raison mais gis nañ en France en 2016 ba nga xamee ni Macron Macron ministre de l'économie et des finances il avait une ambition ministre de l'économie rek finance ministre de l'économie et des waaw waaw bi mu amee ambition mmh. présidentielle. dafa avec son mouvement en marche il a démissionné. waaw option Niger. Mmh. Bazoum. ministre de l' intérieur. <clears throat> quand Youssoufou a voulu en faire son dauphin. Mmh. il a démissionné du gouvernement oh. mais le problème sax le problème ça c' est des éléments de comparaison rek pour vous dire que li nga wax fii c' est pas valable peut-être ailleurs. mais le problème c' est pas tant l' du premier ministre que le fait d' empêcher à l'opposition de se mobiliser et de se mouvoir ah, aussi. Bon, attends, le problème de fond c'est ça. attends mais je je dinaa wax ci problème de fond boobu mais mais mais gis nga euh, tu as pris l'exemple de Macron. Macron était dans le gouvernement de Hollande. oui. à un moment donné. Mm-hmm. il s'est rebellé on peut l'appeler comme ça. dem berye fu boppam. bu doon déglu Hollande du ko mais berye fu boppam mais kii nag. Bazoum ne s'est pas rebellé. D'accord. Bazoum a été un choix. Non mais Bazoum, a été un choix mais il était ministre de l'Intérieur. Il n'était pas Premier ministre. Donc a fortiori un Premier ministre. Non mais ah non beaucoup non pas a fortiori parce que le Premier ministre tey Bazoum bu doon def tournée lu muy wax man maay ministre de l'Intérieur lu tax muy ñëw di xool lu nga xam ne ça relève du ministère de l'Agriculture wala ça relève du ministère de la Santé le Premier ministre il donc mënoo comparer Bazoum ak le ak le premier mënoo comparer aussi Macron ak ak Kële na li nga wax le fond le fond mais écoutez euh, man man parfois aussi dama dama xamul. nit ñi lii nag mënoo ko layal non non non danaa ko layal non bàyyi rek wax. bon fu opposition yi dem ñu leen du du fi. non xam nga non du d' abord fu opposition yi dem. ñu leen ah, du fi ah c'est courant c'est courant non attends non gars ñu ngi tourné bu yàgg ba yàgg. da ngay dégg da ngay dégg une semaine doo leen dégg ñu ngi tourné normal benn fee rek am benn dëkk ñu ne ñu yuuxu mais dafa jaaduwul mais non mais c'est de bonne guerre. non dafa bëri ay responsable Khalifa Sall a eu le même problème Malick ma wax la rek non li ma lay wax aussi da ngeen ma koy nangul waaw c'est-à-dire candidats yooyu nga lim yëpp donc ils sont des candidats à la candidature comme nous aussi notre gars notre premier ministre il est candidat à la candidature. Personne n'est encore candidat. C'est vrai. On attend la publication de la liste <laughs> officielle. On a, on, a, non, on a 300 candidats, comme 600 <laughs> candidats a la candidature. ça, ça ne, mais non, mais ça ne, ça ne fait pas sérieux. Bon, bref. Mais candidat yooyu nga wax. candidat à la candidature yooyu nga wax. mais écoutez nee naa la ñoom ñëpp da ngay toog une semaine doo dégg ñu wax parce que ña ngay doxal normal. Mhm. ba benn nga jékki-jékki yeewu rek diw bloqué dañ ko fenn mais ça veut dire que <laughs> mais c'est c'est l'exception c'est les ce sont les exceptions qui confirment la règle ça veut dire de façon générale ñu ngi doxal maintenant nag boo ñëwee ci dëkk xam ne préfet mu nga fa xam ne sous-préfet mu nga fa xam li loi bi wax nga yore say caravane takk say rajo takk say gyrophare takk say sonnerie di caravane mais yaa xayti sollicité l'avis de l'autorité administrative. un déséquilibre quand même. Hein? entre ñu reconnaître ko entre le candidat de Benno Bokk Yaakaar et les autres déséquilibre mooy lan. ah déséquilibre bu ñu demoon ngi dem wër leen gendarmerie wër ah, leen. lépp wër dana wër premier ministre <laughs> police dana wër premier ministre euh, gendarmerie dana dana escorter premier gouverneur mais c'est que vous ne savez pas. ngeen raxalaasi ngeen raxalaasi candidat la visite pourquoi était elle était un élément. était, était, était plus économique que, comme vous dites, mhm. politique. politique ouais. Ce sont les gouverneurs qui ont établi les programmes en relation avec le Premier ministre. Ce sont les gouverneurs qui informaient les maires. Ah oui. Ah oui. Et dans plusieurs rencontres gis ngeen gouverneur yi toog wala préfet yi toog xam nga ne bu doon politique gouverneur du toog préfet du fa toog maintenant nag boo ñëwee ci population ama mais écoutez on, chacun se bat avec ses moyens. Mhm. mais l'essentiel mooy que les moyens soient légaux. les moyens de l'État mais, mais le problème non, les moyens pas les moyens de l'État. Ah, mais, parce que tout simplement. non xam nga foofu foofu kan ah. euh, en tout cas les ministres qui utilisent les moyens de l'État xam mu nekk nii. on a yow yow bi mu ñëwee Louga bi mu uh-huh. ñëwee Louga. Uh-huh. Darou Moussi. Uh-huh. da ngay impliqué d'autant que sax yow la tànn comme délégué régional. ah si parrainage yu Amadou Ba Euh, maanaam ministre bi moyen ministre nga yóbbu. du mel ni fan ah dem Louga di. ah non loolu nag xam nga si tu on mon exemple. attends si tu prends exemple. non comme comme tant d'autres ministres non non non man non tu waaw donc maa fi nekk maay tontu. Hmm. si tu prends mon exemple. oui ce matin. mon d'âge peut-être mu ngi may seetaan. Euh, parce que man jotuma carte carburant ba jamono ji may jotuma carte carburant Sonaco jotuma carburant euh, ministère de l'économie sama carburant bopp waaw moom laa taal dem Louga sama oto bopp laa taal dem Louga moom laa defee tourner donc man moom tu es mal tombé. waaw <laughs> tombé wala nga mais je dire les les autres ah. muy euh, muy muy muy ñeneen ñi dem. Eh, non ce que je dire mooy que li ma la wax mooy. les moyens de l'État mobilisés. non non attends il faut. c'est que c'est calculé c'est ça va calculé je n'étais pas parti. c'est man j'étais parti en tant que responsable politique. Mhm. mais le ministre de l'éducation mon collègue Anne. qui est ministre de l'éducation ouais. qui n'est pas de la région de Louga. mais quand on inaugure le lycée de Koki. Mhm. mais daa war a jël carburant gouvernement bi ñoo fekkee inauguration lycée de Koki. normal oui. amul problème. quand le premier inaugure aussi lan nga bëgg mu jël. Mhm. donc y' a pas de y' a pas y' a pas de confusion. non y' a pas de confusion et puis xam nga yow problème yi ngay wax yëpp. on était en fait tu étais là bi ñu doon nekk opposition. Mm. tey lu ci bari dañ ko dañu légiférer ay campagne déguisée ay campagne léeg wax délai bi nga xam ne bu ñu ci àggee kenn amatul droit def léeg mais àgg wuñ ci délai yooyu nag dañuy di bàyyi bañ àgg ci délai yi. muy kon ne def lii ngeen soo wax campagne déguisée xam nga ce qui pose problème mm. surtout aux observateurs. Mm. c'est que cette confusion qu'il y entre la politique et même l'administration yaa ngi naan sànq. c'est les programmes de visite sont même élaborés par les mais on a l'exemple de la DGO e, par exemple. démembrement du ministre de l'Intérieur chargé des élections qui dans le cas de la radiation de Sonko du fichier électoral benn refuse d'exécuter une décision de justice il paraît qu'il y a un recours qui a été introduit etc et de l'autre côté on voit que quand l'opposition veut se mouvoir il y a les préfets et tout ça donc le problème que les Sénégalais ont maintenant c'est qu'ils ont comme l'impression qu'il y a une politisation de l'administration Et ça, ça pose problème. Vous savez, vous savez, vous savez, euh, Momar, l'administration sénégalaise est tout cas, c'est ce que l'on la vérité. En tout cas, man, c'est la pratique. Man, j'ai été euh, dans l'opposition, bon, mon tangué, moi, on pratiquait les préfets et les sous-préfets. Dans le pouvoir, pratiquer les préfets et les sous-préfets. Bis vous n'êtes que moi, l'exemple d'un préfet mm-hmm. qui, lors d'une élection lors des élections locales je donne mmh. pas mhm. l'année parce que euh, nit ñi mën nañ ko xam hmm. euh, ñoo amoon benn erreur bu ndaw suñu benn liste oui oo ko téléphone ma ne ko monsieur le préfet euh, suñu liste vraiment dafa am erreur matérielle bu ndaw mu ne ma non mais monsieur le ministre on a déjà déposé c'est fini insisté ma ne ma dama ne si vous voulez dites au président de renvoyer mais. <laughs> li mais les gouverneurs les préfets quand ils dans le droit ministre ma lu leen dara. à une certaine époque ah. non non non c'est valable jusqu'à présent non les gouverneurs et les préfets mënoo leen a la loolu nga xam ne loi bi da leen koy da leen koy da leen koy tere par contre nag bu ñuy exécuter loi bi nag dañuy exécuter aussi loi bi li ñu wax naan caravane dañ ko réglementer. dafa am jamono boo ko war a def dafa am noo ko war a defee dafa am foo war a jaar mu tàgg fa la neex rek dema ko ñëw donc loolu préf am na préfet yu nga xam ne nag mën nañu sëgg mu jàll moo tax léeg-léeg gars yi doo leen dégg am na préfet yu nga xam ne ñoom duñu ko du duñu ko def noonu la demee maintenant sur la décision de justice xam nga la justice elle est au-dessus de tout le monde ñun ñëpp ay justiciable lañu la preuve l'état sax est justiciable parce que loolu moo tax. Euh, l'agent judiciaire l'agent judiciaire de de l'État du de de jël pouvoir euh, pourvoi. en cassation oui. Euh, yóbbu ko Ziguinchor. Mhm. wax ne li juge bi def àndu ci. mais quelle est la preuve d'une quelle est la plus belle preuve d'une justice indépendante sur le cas de Ziguinchor. parce que vous savez très bien que c'est un dossier très sensible donc su fekkoonte ne état am na ay leviers yu mu mën a agir ba juge bi. du wax li mu wax mais état def ko mais état mënu ko. mais non le problème attends attends attends attends je termine état mënu ko donc le juge il est indépendant jël na dogalam bi mu jëlee dogalam nga ne ma lan moo tax léegi nag tribunal euh, euh, direction général des élections. appliqué wu mais yëf yi jeexagul njaw des na xam parce que ah ñun am nañu droit juge bi jugement bi jeexagul. mais dafa am mais attends attends am nañu droit jugement bi jeexagul jugé nañu ko en première instance. dugal nañu suñu suñu suñu recours pour mu dem en deuxième instance njaw des na xam kenn xamul kenn xamul lu juge bu mujj di. mais monsieur le ministre. waaw. il y a l'article L47 du code électoral. Hmm. qui dit que quand tribunal prend une décision. Hmm. en la matière. l'autorité est chargée de l'appliquer. mais est-ce que muy benn attends muy benn. Ah. ensuite il y a l'article 74-2. Ah. de la loi organique de la Cour suprême. Ah. qui dit qu'un recours en cassation ah. n'est valable, n'est suspensif que dans quatre cas. D'accord. donc lii jëfe la c'est-à-dire wax nga ko c'est-à-dire un état de droit. se soumet à l'autorité de la loi. mais je te réponds sur deux choses. quand vous dites que le juge prend une décision euh, l'état doit se soumettre mais il faut que la décision soit définitive. non en eh, matière ah, mais non la décision n'est pas encore définitive. Non, monsieur le ministre, donc c'est pas une question définitive ou ah, pas définitive. si si si si, la décision n'est pas définitive, elle n'est pas définitive. Non non non. Maintenant, en, ah, tu me le recours. Ce ce que dit la loi électorale à l'article 47 est très clair. Loi quand il y a une décision de cette nature-là. dans cette matière <laughs> c'est très clair. est-ce que la décision existe. mais bien sûr que la décision en première ah, instance en première instance. ensuite yow. mais à beaucoup de deuxième instance. caractère suspens bi mu mais mais attends c'est pas valable dans le cas de cette non non on n'a pas dit que c'est valable ou c'est pas valable. xam nga ñoom dañu wax ne le recours n'est pas suspensif. c'est leur argument. nous notre argument c'est de dire la décision n'est pas définitive. mais non mais. ah le attends mais le recours n'est pas sensible kay leer na. mais mais le recours n'est pas ça doit être une application. mais mais mais mais il faut pas jouer dans la sémantique mais quelle décision. il ne faut pas jouer dans la sémantique ah non je ne joue pas. c'est-à-dire la décision qui a été prise par le président du tribunal de Ziguinchor. Uh-huh. c'est d'annuler la radiation d'Ousmane Sonko. Mais, mais, mais Et en vertu de l'article 47 la décision, non, de la attends, loi électorale. en première instance. Non, c'est pas une question de Ah, mais ah, non, n'a pas la le droit, nous, de nous pouvoir en cas, Non, la pouvoir... preuve, la preuve. Je vous donne un exemple. Uh Une décision a été prise portant dissolution de PASSEF. Décision administrative PASTEF a introduit un recours. Hmm. mais le recours n'est pas suspensif. mais non mais attends. et c'est pour cette raison que. attends même jusqu'à présent dans la terminologie on parle d'ex-PASTEF. Euh, parce que c'est pas suspensif. non que c'est exactement le même cas. non mais c'est-à-dire que faut il faut contrario. le PASTEF a été dissous. par. Le... Et ça a été d'application oui, immédiate. Non comme le fait de refuser de donner une fiche de parrainage au représentant de. de, de, de au mandataire de au mandataire de c'est la même chose décision administrative la attaquable devant les tribunaux. d'accord on peut passer à chose mais attaquable devant les tribunaux. on peut si la décision. ne les Allemands mais il attaque devant les tribunaux argument contre ah, argument. <laughs> léegi léegi dañuy avancer parce que il ne reste pas beaucoup de temps. waa nga koy wax léegi xam nga dañ la tànn également nga jiite le parrainage. hein, au niveau euh, de la région de luga mais on sait comment ça se passe à Benno Bokk Yaakaar souvent ay problème dégo problème entre les responsables nan nga ma nan nga bëgg organiser le parrainage pour que surtout quand même nga mën a impliquer tous les responsables à Louga bu ma jëlee le cas de Mamour Diallo et Moustapha euh, Diop et Moustapha Diop ak entre autres mais, mais, mais non xam nga je suis euh, le profil euh, consensuel parce que hmm. man bokkuma APR man LDR Yeesal laa bokk d' abord. donc euh, sama yoon nekkul ci conflit entre monsieur Mamour Diallo et monsieur Moustapha Diop. dëgg la un. deuxièmement te xëy na bu ñu tànnoon kenn ci ñoom bu indi problème. <laughs> deuxièmement moi je deuxièmement deuxièmement euh, je suis de la région. oui. et je crois que on me connaît un peu dans la région d'accord troisième élément maintenant euh, mun naa waxtaan ak ñëpp mun naa waxtaan ak euh, suñu grande sœur madame Aminata Mbaye mhm. qui est mhm. quand même une figure emblématique de Louga man na waxtaan ak mon jeune frère Moustapha Diop mën na waxtaan ak mon frère Mamour Diallo mën na waxtaan ak moo frère Mbéri Silla mën a waxtaan ak les maires euh. donc je crois que ci man lay gën a yombe bu ñu ne woon xaj na diw la bu bokk APR. Hmm. donc je crois que choix bi ñu def foofu. Hmm. mooy choix bi calmé. te incha allah hmm. euh, dimanche dinaa dem Louga bon ñu waxtaan ci parrainage bi. xool fiche yi nga xam ne jot nañ leen remplir ñu jox ma ko ma indil ko délégué national ñi nga xam ne dañu soxla ay fiche ñu jox leen. est-ce que am nga défi défi par rapport au nombre. mais non pare na parce que gars yaa ngi dégg fii Dakar dix mille fii ah, yaa ngi euh, un maa ngi dégg amado Ba am na Medina euh, en l'espace de quelques heures <laughs> presque un million de signatures <laughs> yow Louga Louga non donc c'est trois départements muy Linguère Kébémer ak Louga mm-hmm. aujourd'hui nous avons distribué pour soixante quinze mille euh, parrain comme première dotation et la deuxième dotation aussi dina àgg foofu mhm. ainsi de suite mmh. donc ñun euh, xam nañu les résultat yi ñu amoon dans ces différents département à l'élection présidentielle de 2019 et nous chercherons à dépasser ce ce résultat-là mmh. donc on ne se fixe pas ne fii la ñu war a yem mais vous voulez avoir plus. Vous voulez avoir le maximum le maximum. Ah, mais, mais, et on mais, pense que on l'aura. mais mais léegi yoon bi ngeen jël méttiwul. Eh xam nga tamit loolu la les les petits candidats entre griffes di reprocher. Hmm. ah mënoo doon jël seen député rek ñu ñu parrainé leen. non ñu bàyyi leen suñu militant yi <laughs> démocrate <laughs> ñu bàyyi leen suñu militant yi mais démocrate waaw bàyyi leen suñu responsable tamit euh, la démocratie mu respiré loolu moom ban façon politique la. ah ban yombalal sa adversaire bu ñëw toog sa toog sa place. yéen am ngeen ay élu ba pare. non non non bu fekkoon ne leer nañu ne. kenn mënut a am parrainage ku dul ñun waaw ko dul ñun. Eh. bu boobaa quand pour comme la comme Macron comme Macron l'avait fait. <laughs> avec Marine Le Pen. Eh. bon mën nañoo jàppale deux ou trois mais xam nañ ne Sénégal yaatu na. te dana am ñu nga xam ne dañu am. bari na ko mën am la moom c'est optionnel yoon bu leen neex jaar. waaw mais samedi. Eh. samedi LDR Yeesal dafa def benn réunion. bureau politique bureau politique mm-hmm. nii dañuy laaj ne dañ la euh, jox mandat. Mm-hmm. nga waxtaan ak le premier ministre ak président. pour ñu def une refondation de Benno Bokk Yaakaar de la base de la du sommet à la base pour en donner profondeur. plus pour de considération aux alliés. en profondeur. est-ce que est-ce ils n'ont pas. assez bon, en considération ce qu'il faut dire xam nga. refondation la on est du sommet à la base. en profondeur. waaw d'accord non daa danaa expliquer. ils ont ba ba mu leer. ba mu leer ci ci ci ci ñëpp dinaa expliquer. xam nga <clears throat> ñun ñu ngi dugg euh, grande majorité présidentielle parce que on préfère ce terme là qu'au terme Benno Bokk Yaakaar mais bon on dit Benno Bokk Yaakaar et la grande majorité présidentielle. Mm-hmm. en 2018. Mm-hmm. bi ñu duggee dañoo fekk ay kuréel yu taxaw conférence des leaders. Mm-hmm. Euh, le CEP. Euh, fekk organisation jeunesse am seen organisation sage am seen organisation cadre am seen organisation femmes yi am seen organisation mm-hmm. au sommet <clears throat> ñu fonctionné ak ñoom noonu ba yàlla dogal ñu ñu dox ak ñoom bañ dépassé deux mille dix neuf ba tey ñu war a eggaat ci deux mille vingt vingt quatre mm-hmm. donc on a eu le temps à l'intérieur d'observer le fonctionnement de Benno Bokk Yaakaar li ñu gis lan la li ñu gis mooy ci kaw mu ngi dox parce que quand le président Macky Sall on est là avec lui conférence des leaders day toog di wax ñun. Mm-hmm. bala muy euh, def dara. diisoo ci ak yéen diisoo ci ak ñun jàppee ñu nawle mais loolu ci kaw la yem boo demee ci suuf suñu militant yi bureau politique bi. dañ ko kaas ba sonn boole ñu ci suuf donc responsable APR yi nekk ci suuf du ñëpp nag yaataluñu non waaw mais du ñëpp il faut aussi être objectif du ñëpp et d'ailleurs feeñ na ci bureau politique parce que am na ñu nga xam ne jóg nañu wax ne ah ñun day responsable APR nekk foofu ñu ngi ñuy boole ci lépp lu ñuy def mais am na ay benn benn yu nga xam ne allie la ñuy bañ a gis ci suuf alors loolu benn la loolu nag dañ ko war a jeexal parce que warul dox ci kaw rek bañ dox ci suuf benn la ñaareel bi aussi bu Benno Bokk Yaakaar amee au niveau leader au niveau CEP au niveau CEP élargi mais ça c'est au niveau national lu tax duñu ko décliner au niveau régional au niveau départemental au niveau communal hmm. mais benn Bokk Yaakaar ci kaw rek la mais amul de structures Benno Bokk Yaakaar fonctionnelles hmm. Hmm. dans les communes dans les départements dans les dans les régions ñu jàpp nag ne Benno Bokk Yaakaar e la grande majorité euh, présidentielle dañu war a noppee nekk ay kuréelu élection hmm. maanaam kuréelu élection rek nga xam ne bu élection jubsee rek la la la la waa département euh, x ou y di di booloo mu nekk kuréel politique même bu élection amul léeg-léeg ñuy dajee léeg-léeg ñuy waxtaan parce que benn mbir mooy nga conquérir réew mi hmm. mais beneen bi mooy nga téye ko boo ko téyee nag da nga war def animation à la base da nga war a participer à la communication mais nooy participer ci communication bu nga xam ne yow ñu nekk ci suuf kenn duy ñëw ci ñoom di leen jox information ba ñu xam li xew ci ci réew mi donc waratul nekk rek structure électorale mais dafa war a nekk une structure mais yow loolu ngay wax noonu fii ak élection bi xaj na fi wala yow. non li nga yéene romb na élection yi. wala ñun ñun li ñuy wax ñun li ñuy wax ñun li suñu mébét. mooy suñu candidat Amadou Ba gagné premier tour mais Benno Bokk Yaakaar continuer grande majorité continuer donc li ñuy wax kay du pour quatre mois li ñuy wax c'est pour la la la la survie de Benno Bokk Yaakaar parce que quand même bu ñu président Macky Sall wanee ginnaaw dem nekk ci yeneen mais Benno Bokk Yaakaar benn xar kanam loo am. mais ba léegi moom mooy président Benno Bokk Yaakaar. waaw président mais est-ce que bu nekkatul président de la République. dana continuer nekk président Benno Bokk Yaakaar est-ce que miin gi nga xam ne ku mel ne man miin na ko président Macky Sall wala keneen miin ko président Macky Sall wala xam président est la même chose donc la ma waxoon PDS ba ma nee nañu réforme dama ne kuréel politique dañ koy tënk ci ñaar ñu nga xam ne duñ fi jógee muy les statuts et le règlement intérieur et programme fondamental. yow daal yeesal rek. yeesal yow daal yeesal rek. réformer il faut réformer. <laughs> xam nga si ci politique boobu Momar wax. Eh, eh. da ngeen wax sécurité lu bëri. Mhm. on a eu c' est wax ngeen ko sax ay défis sous régional ak yëpp. Mhm. lan moo tax la sécurité pour yéen LDR yeesal doit être au cœur de tout ce qu' de faire dans ce pays. mais bala nga naan naam danga nga fay ne. julli gi sax bala moo mat jaamu yàlla gi sécurité day am bis bu réew mi pëcc xawoon nit dina yeewu fajar bëgg julli ji du ko mën. sécurité c'est la base de tout bala ngay xam ne damaa xiif damaa mar damay faju ji dafay fekk nga am sécurité et diir que notre pays n'est pas menacé hmm, kooku c'est de la démagogie Mali ngi fii ñu frontière ak moom village yi di duggante nekk ay ay ay ay mbokk mhm. yeneen réew duma ma du ma continuer di lim ñu ngi frontière la fay la xew yëg nañ ko lafay xew xam nañ ko mais donc tey jii tey tey tey tey combat bi ñëpp war a mën a mëne mooy fexe ba sàmba booy du tey réew mi fexe ba ñu nga xam ne dañu am link ak jihadistes yi dañu am link ak salafis yi dañu am link ak leneen duñu sénégalais duñu leen fal bañ nekk ci bopp da yaakaar ni ci ñuy wut réew mi am na ñoo xam dañu am link ak salafis yi am link ak ñi wala xam nga nit daa lëndëm nit dafa lëndëm nit kenn xamu ko te ñun ñëpp ay mbokk la euh, man mii sax am naa mbokk Mauritanie keneen am na mbokk Mali keneen donc nit dafa ëndam te ñun suñu modèle république bii ñu am suñu démocratie bii ñu am suñu dund gi ci jàmm gi am Sénégal yi daañ coow daañu wax waaye li ci ëpp ci jàmm lay lay mujj loolu du ñu nangu kenn yàqal mais est-ce que est-ce que est-ce que on, vous n'êtes pas en de terroriser un peu les parce que euh, yàgg nañu wax force occulte gisuñu ko ah gis nga force occulte kay force obscure gis nga force occulte kay yow gaa yi jékki ay menaces terroristes gis nga force gaa yi jékki-jékki jël ñaari bomb xamalan sànni ci sànni ci bis buy dem loolu menace terroriste ci boo xam ne ñu ngi organiser ay ndajoo ay màggal ay gàmmu dara mais dama ne mais est-ce que est-ce que xam nga macha allah tu es un excellent journaliste li ñuy yëg ñun en tant que ñu bokk ci état parfois da koy yëg yow. xam nga ne bu ñu jubee yenn événement religieux yi déggoon nga fi yenn wax ak yenn coow ak yenn romandaat mais occasion la pour ñu jaajëfal nos force de défense et de sécurité parce que nag gëm naa ne seen action seen vigilance seen teewaay ak le soutien de l'État par les par par par par par ak ni leen équipé ak ni leen jàppale ak ni leen motiver tax na ba ba léegi gisaguñ lii xew ci yeneen réew aksi mais loolu warul tax ñu naagu jàpp na rek du fekk warul tax dañu war a taxaw tem teg ci bopp réew mi ñu nga xam ne am nañu expérience am nañu volonté xam nañu lan mooy Sénégal lan mooy Sénégalais xam na ñi tamit yan jéego lañu war a séqi ba gën a dëgëral lii nga xam ne dañ ko am. lé muy suñu muy lu nga xam ne ñëpp dañu koo ñee. yaa ngi ne démocratie mm. non ñëpp dañu koo ñee. Mm. xam man moom dana wax dana waaye sénégalais bu ci génn fi dem ci réew yenn réewu Afrique yi da ngay xam ne senegal gii du noonu de Sénégal gii président Sall liggéey na ko nag. am na benn débat am na lu fi am nag ci ñaari at yi ñu génn. Ah, loo xam ne wax dëgg yàlla. y a eu des incidents des événements graves. malheureux des loolu xamee wuñ ko woon Sénégal. loolu moom. loolu moom vraiment mais bien sûr moo tax. moo tax nag euh, lii raam comme ci ñag bi la jëm. nañu nañu nañu rester rek. gis nga daal réew mi daal ni ko sengoor yore ko. ba hmm. jóg ba dem Abdou Diouf yore ko ko ba dem. président Abdoulaye Wade ñëw yore ko ba dem président Macky Sall yore ko bay waaj a dem nañ continuer ci loolu. élection nag moom dañ koy ubbi. waaw ñi nga xam ne dañuy bokk bokk Sénégal yi tànn ku ñu tànn ñu xam ne kii la ñu tànn waaye ki ñuy tànn yàlla nekk nga xam ne il est imbu des valeurs républicaines. am na am na benn débat ci seen candidat bu am xam nga aujourd'hui yaa ngi fait parce que c'est la première fois d'ailleurs qu'un président sortant dem te bokkul ci élection. Mm-hmm. Amadou Ba dauphin bi mu jël pour mu remplacer ko au niveau de Benno Bokk Yaakaar mm-hmm. avant peut-être président de la République mais dafa am benn benn confusion. bu ñenn ñi di gis gisaguñu en tout cas la touche Amadou Ba dafa mel ni ni ñu gisee y a un maanaam dafa mel ni c'est un candidat Macky Sall bis bu ñëwaat comment faire yow avec euh, ce parcours que Amadou Ba jël li nga xam ne mooy actifu président Macky Sall passif bi parce que y en a eu quand même ah wax tuuti si jeunes yi pour nga xam naka la war a mën a def ba jël l'actif li nga xam ne moo baax si Macky daal di euh, passif bi nag mu fàtte ko. indi beneen programme indi empreinte indi empreinte bilan boo gis rek actif laa ak passif. mais na actif yi ëpp rek. voilà lool je crois que en ce qui concerne euh, le bilan du président Sall euh, xam nga même opposition bi bu ñu wax de dëgg. Hmm. kenn du wax waxu bilan de. kenn ci ñoom mosoo dégg kenn ko ne bilan bi nangam moom kay. dañ naan bilan immatériel ak bilan matériel ak. bilan nangam ak bilan la rek. bilan non même bilan matériel boobu bu buñ ci duggoon buñ ci duggoon ñu xam ne même loolu ñuy wax noonu ay cuune la ñu. parce que non c'est la vérité parce que lan la lu ñuy wax marche tey boo demoon ministère de mu jox la registre ñuy aar marche. mais mënoo comparer le nombre de marches autorisées démocratie bi nag delloo lan lan mooy démocratie waaw mais attends mais est-ce que marche dafa am marche dafa am marche ak marche marche ngénte wala ñaari mais mais <laughs> Babacar marche dafa am mais Babacar bàyyi la si nax la marche politique dama ne man man je suis un démocrate et modestement euh. moi et ma génération nous avons contribué c'est vrai à l'approfondissement de la démocratie. c'est vrai donc xam nañu aussi. vrai nu ñuy xeexee. mais xeex yii fi Momar wax léegi nit ñi dee. Hmm. ak wax yi nga fi dégg. Eh. opposition mu mel noonu. man mii de ah, benn témoignage Momar Momar benn euh, non non non non benn témoignage mooy wax léegi waxu opposition bi quand même non Momar non eh. Momar reconnaît quand même que eh. Wade a été un un dur opposant benn témoignage si Macky Sall si si Ablaye Wade ma ni léegi ñoom bi ñu nekkee opposant parce que xeex bi commencé wul léegi ah je me rappelle benn manifestation buntu RTS moom député la woon je me rappelle ak Pape Birame Ndiaye nga xam ne depuis 98 mais ils étaient malmenés comme pas possible mais gis takk bi avec leur échappe ñu dugal leen si oto GMI yooyu temps yooyu yi ñoo doon nekk wala wala LG yi mbaaw <laughs> seen i rangers les députés tëral leen moom mi tëral leen ci oto bi jël seen i tànk teg leen ko. mais xam nga loolu léegi kenn ñu métti ko def. loolu ñu ngi ko doon def booba rajo yeeg télé yi. ni mel neeg réseaux sociaux yeeg Facebook euh, yeeg. mu yegg benn niveau boo xam ne yow man ngaa. non man may déplorer. Hmm. xam nga li may déplorer. man je suis pour qu'il y ait une opposition parce que opposition dafa baax ci dëkk. opposition day pousse pouvoir pour pouvoir gën a def ay résultats. opposition mënul ñàkk ci dëkk. Hmm. en tant que démocrate on l'accepte mais quelle opposition. est-ce que ñi nga xam ne ñoom lañu am en face de nous est-ce que réellement nag sont des opposants parce que ñoom li ñuy wax bu ci réew mi maanaam bu ñu leen dégloo suñu fondement réew mi lañ bëgg a nërmel ni ñuy defee suñu diine nit ñi nga xam ne rapport yi nga xam ne moom la nit di war a am ak doom di war a am ak waajur rapport yi nga xam ne moom la tel c'est-à-dire que mm-hmm. ils sont tellement violents dans le discours et dans les faits que ñun mais mais lu ñu woon noonu bi ñu nekk opposition est-ce que aussi bi ngeen nekkee opposant y avait un exécutif aussi aussi violent vis-à-vis de l'opposition quoi je donne un exemple xam nga Wade ak lu mu opposé woon opposé ak Abdou Diouf ak Senghor ils n'ont jamais pensé les éliminer pour une élection présidentielle or or ak lu mënti am au moins Macky Sall il a réussi la prouesse d'utiliser la justice et d'empêcher à trois principaux opposants de participer à une élection ak lu mënti am nag ak lu ñu mën a jiit yaa yu Khalifa Sall yaa yu Karim Wade yaa yu Ousmane Sonko présentement est-ce que loolu aussi c'est pas un problème est-ce que d'où Macky Sall dafa am l'opposition en réalité bi mu mérité parce que lui aussi il est très dur vis-à-vis de l'opposition mais non est-ce que c'est pas ça qui pose problème man jàpp ma xam nga xam nga c'est vrai si vous partez de 2000 de 2000 2012 2013 2014 man nga analyser ni nga analyser mais soo remonté woon en 1962 lors des événements de 1962 entre Dia et Senghor wala nga remonté beneen période bu nga xam ne bi fi Majmout Diop nekkee na ko yàlla euh, yërëm bi démocratie di soog a di soog ba parce que booba waxuma la waxuma la waxuma la existence su candidat mais parti sax dañ ko nangul woon parti sax dañ ko nangul woon dañ doon wax ne ñëpp daal benn parti fi nekk tout doit se passer à l'intérieur yaakaar naa xam nga yow waxtaan ak yow ci aspect bi dafa am solo. parce que da nga bokkoon ci parti boo. xam ne vous avez eu à faire des conquêtes c'est ça. bon ñu gis ni aussi que depuis 2012. quand même démocrate am na lu ci non il y a aucune conquête démocratique remise en cause. li xew mooy yoon maintenant nag yoon xam nga yoon li ñu doon wax léegi man ak yow. li ñu doon werante nga ne ma le recours ne euh, n'est pas suspensif ma ne la y a pas la décision ne pas définitive maa ngi dañ ci doon wax ba suba doo ma jëlee ci li may wax du ma la jëlee ci parce que droit ngay wax. ma koy wax ci fànn boobu politique ngay wax may wax politique mënuñu cee d' accord c'est-à-dire que tey d' accord ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci geneen laa ngi jàpp ne seeni leader dañ leen a éliminer wala nangam parce que man li ma gëm mooy li ma gëm mooy bu fekkee ne par exemple pour parler du cas de du dernier cas pour ne pas personnaliser. waaw il ne faut pas personnaliser. waaw mooy li ma rek pour aller du dernier cas. xam nga man su ma nekkee opposant man en tout cas ba ma nekkee opposant jeune laa woon amoon naa ay ambition am naa lu ma ñeme woon a def ak lu ma ñemewul def parce que damay xam ne man mii di opposant ñu ma teg gët je vais pas tendre le coup pour que ñu koy dagg. mais kan ko sekkaloon aussi am na. mais attends yegg ak yow. déedéet non defal na non. voilà non boo fay yeggoon mais ñaata yoon la ñu tëj Ablaye Wade ñaata yoon ñaata yoon lañu ñu tëj Ablaye Wade ña li liñ teg nii liñ teg nii liñ teg nii euh, euh, Sonko mais ñaata yoon la ko teg Ablaye wat combien de fois atteinte à la sûreté de l'État xaw ma nangam ak nangam ak nangam dem fële jul ay armes libyennes euh, indi teg mais est-ce que est-ce que àggaguñ est que est-ce que àggagum est-ce que est-ce que àggaguñ nañ ak moom foofu. mais est-ce que Ablaye Wade yeggoon nañ ci moom en deux ans. qu'il y ait trois dossiers judiciaires le concernant. ah est-ce que yeggoon nañ foofu mais mais dama. xam mais yan dossier. mais pour comparaison mais yan dossier. Ablaye kenn mosu ko gis ci <laughs> yenn <laughs> bërëb Ablaye Wade ñu man je me rappelle. Hmm. président Wade bu ñu daan toog dans l'opposition dañuy def communiqué <coughs> pour war a def conférence de presse wala war a def bureau politique ak ku man di def euh, la première mouture. Hmm. dana ko xool xool ko càmbar ko ba gis ne en tant que juriste benn prox ndoll bu ñu jàkkaar lool mën a jaar ba teg ko tuuma du ci am il veille sur ça mais ñii lu leen neex la ñuy wax. parce que ñi fi dugg kaso yëpp mais xool li ñuy wax lépp man j'étais assez dur avec le régime du parti socialiste mais am na wax ju nga xam ne bu ma koy dégg dama naan mais mais ce n'est pas possible parce que am na loo xam ne waxu politique war fa egg. maintenant nag soo amee opposition bu mel noonu boo amee opposition bu mel noonu l'État nag doit rester debout l'État doit rester fort et l'État aussi doit protéger les citoyens doit protéger la République ñi ñu amal affaire nekk ñu ay parti politique Ah yeneen non non ah bon nekkuñu ay parti politique nekkuñu ay parti politique mais yow foo ko teg foo ko firndaal ah, mais li fi xew lépp rek li fi xew lépp lu nga xam ne am na loo ci am na loo ci am na loo ci xam lu nga xam ne événement yi ñu paase am na lu mu ci lu mu ci wane te attends un parti ay été dissous mm-hmm. état am nay argument am nay élément d'information am na lu mu xam te yow xamoo ko man xaw ma ko ba jël dogal ne dissoudre na benn parti c'est pas la première fois dans l'histoire politique du Sénégal que ñu fiy dissoudre ay ay waaw mais de façon c'est pas la première fois et même en France googu ñuy wax naan pays démocratique bis bu nekk ñu dissoudre ay organisation donc c'est pas ça problème mais ñi ñu dissoudre mais nañ dem ci kanam yoon ne ñun dañoo dissoudre suñu parti danu bëgg nag léegi ñu dem ci yoon bu demee ci yoon kay yoon dana leen jox dëgg bañ leen jox dëgg hmm. ba ba neex sax yóbbu affaire bi ci dafa am benn sujet boo xam ni c'est essentiel xam nga <clears throat> recensement bi génn fan yi rek ñu ngi wax euh, moyen d'âge au Sénégal dix-neuf ans donc ça veut dire que la jeunesse a une part assez grande si suñu dëkk bi donc bu ñu defee émission ba mu jeex tey waxuñu euh, sur cette jeunesse là day doy waar mm-hmm. ñu gis léegi ce qu'on appelle l'immigration clandestine lëmbe réew bi xale yu bëri bëgg a daw kenn gis nga sax ñoo xam ne ñu ngi liggéey am contatu sax mais lu ñuy woowee emploi précaire peut-être la moo tax ñuy dem euh, noo gisee noo imaginer vraiment horizon jeunesse sénégalaise boobu. non xam nga euh, émigration clandestine phénomène la bu nga xam ne njëkkoon dafay yëngutu après mu dal. dafa mel ne dafa tàmbaliwaat. parce qu'il faut comprendre que génération jeunes yi ni ñuy succédé woo dafa gaaw. dëgg la gis nga ñun ñi ñëpp tey ku ci dem suñu dëkk yi xale yi wàcc midi wala treize heures. Eh. saa ñu nga xam ne bu ñu la gisee naan la tonton. Mm-hmm. ah da gis ni yëf yi gaa ni yëf yi gaawee. c'est c'est c'est comme sax loolu nag rythme de progrès rythme démographique bi gaaw na gaaw bu nga xam ne suñu état yi seen doole du leen may ñuy topp loolu ba ku ci war a am liggéey rek ñu wutal la ñu wutal la xëy il faut comprendre que chômage moom du Sénégal dong la am am na États-Unis am na France am na ci dëkk yëpp foo dem da nga fay ñaan de chômage lii taux de chômage la te ñooñu c'est des superpuissances kenn mënul comparer seen doole ak ñun sunu sunu mhm. sunu doole alors euh, boo jëlee phénomène phénomène immigration clandestine nga ne xañ na chômage bee tax xañ na liñ liñ lu ñuy liggéey moo tax mhm. loolu donc expliqué wu ko parce que am na ñu nga xam ne mën nañoo dépenser cinq millions pour def immigration clandestine. nga jaaree Nicaragua dem. voilà mais boo am. yow phénomène yow boo amee 5 millions mënoo waroo mën a toog ci réew mi liggéey. monter entreprise. mais lan moo a mën a yóbbaale. mais parce que parce que man li ma jàpp li ma jàpp mooy. Euh, par exemple man dégg ay xale yuy wax. ñu ne euh, même booy liggéey yaa ngi fi mais tu vas te di lekk di naan maanaam say ambition day limité. mën a dem pour nga tabax sa kër maanaam nekk dans une situation d' indépendance boo xam ni mënoo ko. mais mais mais xam nga man ngaa dem dellu si tabax sa kër tout comme man ngaa dem doo mën a tabax sa kër ndax tey am na ñu nga xam ne ñu nga bitim réew am nañ yeneen préoccupation yu dul yónnee xaalis Sénégal pour leen pour ñu leen tabaxal seen seen seen kër. bon maintenant c' est vrai que euh, de plus en plus. y a des pays qui comprennent que. Euh, ñoom dañu soxla oui par exemple oui. dañu soxla main d'œuvre. donc du ñu wax ci kaw du ñu wax ne waaye dañuy ubbi prox ndool yu nga xam ne dana leen mën a may ñu am main d'œuvre bi nga xam ne moom la ñu moom la ñu moom la ñu soxla gis nga finalement gis nga ñoom li ñuy def nii di tëj frontière yi. Eh. di baare di baare nit ñi baare circulation bi. suñu ko bàyyi woon ñu def suñ suñ comme diggante ak Maroc ñun ak Maroc wala diggante ak ñun ak Nigéria wala diggante ak ñun léegi dootu fi dégg ci émigration clandestine. parce que ni leen xale yi soxlaa noonu la ñu soxlaa xale yi mais nag dañuy am une opinion intérieure bu nga xam ne moo leen di empêcher pour que yenn position politique duñ ko ñemee duñ ko ñemee jël parce que dans tous les pays l' extrémisme l' extrême droite. donc xam nga nekk tubaab yi maintenant maintenant maintenant gis nga mbir mbiru emploi des jeunes li ci état man à travers xëyu ndaw yi ne la at mu jot euh, ñetti at yi nañu créé soixante cinq mille emplois ça règle pas le problème. mais mais ne. l'État a montré ses limites. non non affaire État a montré ses limites c'est que donc dans tous les pays l'État a montré ses limites. sur la question du chômage. parce que des pays wax naa ko léegi superpuissants boo demee da nga fay fekk ay ay ay yow France am na ñu nga xam ne yow boo demee France gis leen Paris da da nga yëkk say euro jox leen. mais xam nga bokkul. waaw def non dama lay wax rek. maa ngi lay wax boo nekkee Sénégal dix huit millions. ñu ne la la moyenne d'âge est de dix neuf yow xam nga yow l'enjeu que représentent les jeunes au Sénégal représente lu ñu ko France. xam nga xam nga xam nga xam nga xam nga moi je crois que il faut partir aussi la base. gis nga am na jamono bu nga xam ne jeunes yooyu ngay wax ñi ci am baccalauréat ñu tuuti lañu. dëgg la. l'État a commencé depuis quelques années à dire nañu tabax ay école ci suuf. Mm. nañu tabax ay collèges nañu tabax ay lycées tey dem nañoo dem ba université Dakar fees université Saint-Louis nangam ñu créé université Kaolack université Sine Saloum université mm-hmm. euh, nangam université nangam ainsi de suite. ak ISEP yi ñu defaral waaw et cetera ak dem nañ sax dem nañ sax ba nga xam ne. Mm-hmm. dafa am certaines filières ñu ne nañ leen di nañ leen di. jàngal li ñuy lu ñuy liggéey. lu ñuy liggéey lu ñu mën a liggéey. alors am ay instruments yu mu taxawal yu mel ne ANPEJ yu mel ne ONFP yu mel ne 3FPT yu mel ne yeneen ak yeneen DER FONGIP. fon 6 et cetera ay instruments yi nga xam ne boo bëggee entreprendre boo bëggee euh, def entrepreneuriat wala nga bëgg leneen taxaw nañu pour jàppale la dem créer pôle emploi nga xam ne dafay regrouper tey boo demee ci benn dëkk boo duggee ci pôle emploi da fa fekk kuréel yi nga xam ne yépp ñoo mën a jàppale ndaw ñi donc état mu ngi dox. mais pourquoi on a l'impression que c'est une goutte d'eau. non non parce que parce que voilà est-ce que le problème également c'est pas pour compléter Momar. que état bi moo ak kii moo lépp yow mi nga xam ne libéral nga. Mhm. mais est-ce que l'état aussi n'a pas le devoir. l'emploi non xam nga xam nga tant tàllal le secteur privé tout ça. non xam nga xam ne dina génn. xam nga man pour man gis nga gis nga benn benn maillon. Hmm. gis nga secteur privé. oui il faut soutenir le secteur privé parce que secteur privé bu ñu ko jàppee bu ñu ko jàppalee dañuy dañuy dañuy yokk assiette bi. maanaam te loolu lu ma lu ma gëm la mais lu lu président Sall aussi non parce que toutes les solutions yi nga may wax nii yëpp ah. c'est les solutions de l'État c'est que tout est concentré non, non, entre non, les mains de l'État non non non attends non Babacar c'est pas seulement l'État quand la DER finance Babacar Dione qui est un jeune Babacar Dione va dans son village monte un projet moom mu ngi fay boppam mais jël na ñaar wala ñetti nit yu nga xam ne ñu ngi ànd ak moom di liggéey mm-hmm. donc état day jàppale mais nit ñi dañuy entreprendre dañuy def euh, jël jël seen i def seen i activité maintenant boo waxee ne ma ah, non la plus grande théorie mooy kër ni naka la ñuy mën a permettre que quand même euh, l'état joxe les condition pour que liggéey man am je veux dire l'état état mënul employé yëpp. waaw mais mais mais day mel ni Sénégal problème boobu moo am quoi l'état veut accumuler non non joxe emploi l'état mënut mais l'état employabilité bi lay liggéey bu taxawalee benn parce que écoutez te yaa a combien de gens qui ont été soutenus pour avoir des métiers à travers programme yi ma yi ma yi ma lim léegi. Mm. parce que comme dafa am fu muy dooree bu fekkee nit ki moom dooleem rek la am jàngul boulanger jàngul restauration jàngul leneen jàngul leneen dana jafe dimbale mais état foofu la tàmbalee parce que nit ki aussi bala muy mën a am. tey foofu sax c' est un problème. c' est un ah. la moo tax ma ni c' est un problème c' est un concept faux parce que bu ñu nee jàngul dara fii. au niveau de l' artisanat ñaata mécanicien la ñu am. Hmm? yoo xam ne dañoo am seen métier ñaata tailleur la ñu am. waaw mais mais yow li ngay mais ñooñu déjà ñooñu ñu am. non xam nga yow li ngay wax nii. y' a beaucoup d' artisans y' a beaucoup de tailleurs. comment leur ñu dund ci seen métier attends a beaucoup de tailleurs y' a beaucoup de mais. yow yore nga sa benn entreprise benn entreprise mécanique euh, euh, mécanique mais demal DER nga monter sa projet. Ah. boo nee man dama soxla nangami million présenter projet bu nga xam ne projet bu crédible la mais ñu jàppale la mais nangu la fay nag. xam nga fii aussi li tax ñu fi di li tax ñu fi tourné dañuy jox Babacar ne ko yow daal jàmbaan nga gis nañ lay kii. parce que ni ngeen koy joxe ñu boo leen xaaree ba élection jege. ñu yaakaar ne non non non non warul demee waaye gars day yaakaar pour jàppale la warul demee noonu. Ah. que xam nga nit ñi aussi il faut que ñu élever la conscience. Mm-hmm. élever la conscience mooy man dama war a xalaat samay rakk. Hmm. samay rakk xalaat seeni rakk donc bu ñu la joxee dara nga xam ne li ñu la jox c'est pour les voilà c'est pour aussi les générations futures gis nga ni ñu leen ni leen di xalaat dans développement durable ñooñ tamit il faut nag niveau de conscience boobu ñu ak ba nga xam ne bu ñu la joxee deux millions ne la liggéey da ngay a xam ne deux millions yi sa rakk ngi ñëw dans deux ans trois ans moom dañu koy soxla ñu ngi def si ñu ni deux minutes lañ defee euh, le ministre une question comme ça <laughs> en deux mille vingt trois sur les vingt vingt trois mille yi fi jógee wàcc Espagne les quatre vingt dix pour cent sont des sénégalais. Ah, lu tax lu tax loolu léegi lu tax léegi lu tax. <laughs> boobu lu tax lu rek sont des sont la. non la majorité sont des sénégalais ah. léegi lu tax. comme ni ko soxna Mimi Touré waxee. le gouvernement je conteste defu ci conseil <laughs> defu ci conseil non mais les chiffres valent ce qu'ils valent. mais pourquoi eh. pour un phénomène comme ça. Ah. chaque jour nga dégg ñu ni arrêt jàpp nañ pirogue Sénégal et cetera et cetera des migrants sénégalais pourquoi il n'y a pas eu de conseil ministériel ni de conseil présidentiel là wala est-ce que est-ce que ça doit pas être érigé en surpriorité avec le drame que ça cause non rek xam nga xam nga xam nga c'est vraiment bien sûr drame la mhm. mais man dinaa interpeller aussi les parents mhm. souvent les parents sont complices de leurs enfants parce que y a peu d'enfants yuy euh, dem ci géej gi mm-hmm. te seen benn mbokk du ko yëg mm-hmm. donc ñoom tamit te bu ñu amee problème foofa ñoom ñooy njëkk a perte te xaru daganul c'est-à-dire il faut conscientiser les jeunes il faut conscientiser les les parents maintenant l'État aussi comme ni mu koy defee temps yi jël ay matukaayam. nekk les ah, marins c'est important les marins. Mm-hmm. Euh, marine nationale nekk ci océan bi di wër. gaal gu nga xam ne da nga dañ la suspecté. Mhm. ñu delloo si la am na ay benn benn yu ñu ciy jàpp. am na ay résultats yu nga xam ne ay benn benn ne amaa ñu dem mu ngi am te yaakaar naa ne loolu tamit seen seen seen seen rôle la. mais li koy dindi li koy dindi faut gis nga li koy dindi du Europe tëj ay buntam. Mhm. monde bi c'est un monde libre. Mm. la circulation elle doit être libre. am na d'ailleurs pays yu ko comprendre yu nga xam ne dañuy ñëw waxtaan ak réew mel ne Sénégal. par exemple le Japon ah man de. soxla naa Espagne sax je soxla naa juróom juróom juróom juróom-ñett fukki nit. wala mhm. ñu yéen gaal nañ waxtaan. ngeen tànn leen ngeen yónnee mais bu ñu doon def noonu. est-ce que est-ce que ñi bëgg a dem. parce que am na ñu nga xam ne bu ak lu mën di xew bitim réew du ñu dem moom. Mhm. parce que fii lañ bëgg a tedde fii lañ bëgg a tedde mais ñi bëgg dem bu booba daañu mën a dem. Mhm. nañ ko organiser noonu. réew bu nekk ñëw taxaw man dama soxla lii te lool commencé naa am. Sénégal mu ngi ciy coopérer ak yenn yenn réew pour que ñi nga xam ne soxla nañ leen légalement ñu dem liggéey en tout cas lu mat a taxaw la lu mat a taxaw la parce que ça cause beaucoup de drame. temps bi ah drame nañu góor góorlu rek te euh, taxaw ni ñu war a taxaw parce que réew mu nekk day am ay défi mhm. défi yi nag moom du fi jóg ndax bi su fi jógee état mën na fee jóg gouvernement mën na fee jóg. te defi bu nga xam ne réglé nañ ko rek beneen defi taxaw mm-hmm. donc yaakaar naa loolu tamit mooy challenge bi mooy charme li ñuy def fekk défi relevé ko gëm naa ne défi bi tamit defi bu ñuy relever. merci monsieur le ministre Babacar Tëjël. ah kon boog monsieur le ministre kon. Euh, <laughs> jërëjëf nga ba pare. waaw bon mbokk yi LDR Yeesal xam naa ñëpp seetaan nañu la tey. ah je l' espère <laughs> xëy na Babacar Ndiaye ah, euh, euh, placé na na émission bi ci ci plateforme parti bi. en di ko gërëm di ko maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm vraiment yéen maa ngi leen di sant gërëm di gërëm borom kër gi. parce que man dama gëm nit bu nga xam ne mën nañ ko topp mm-hmm. poñ bii la jóge poñ bii la jógee poñ bi ba àgg fii je crois que El Hadj Ndiaye hmm. c'est pas parce que je suis dans ces hmm. le coin c'est une conviction profonde hmm. euh, bokk na ci ñi nga xam ne mën nañ leen respecter pour quand même li ñu li ñu def parce que quand même ñun ñu ngi bëgg yàgg nag ci seen pour seen euh, seen bi euh, donc fekkee nañu bi muy départ ba ba ba ba tey tey ñu leen di sant te ñu ngi leen di ñu ngi leen di ñu ngi leen di gërëm. amiin mi ngi mel ni léegi beneen li ñëwaat na parce que nee naa un détour Sonacos ñëwaat nga si gouvernement bi. <laughs> amis téléspectateurs loolu la ñuy. mais mais mon passage à la Sonacos. Eh. a été très bénéfique pour moi. apparemment oui. non parce que parce que quand euh, nekkoon ministre rek te yore woo société. c'est vrai. Euh, am na lu muy am am na luy des. da nga jógee député rek dem ministre. man dama jóge député dem ministre. yoroo entreprise voilà mais mais mais vraiment parce que comme ni ma ko wax ministère câble vision la mais là société tu as la main à la patte. dëgg la et c'est important pour un homme politique c'est un conseil que je donne aux jeunes. un jeune kon jeex na. je remercie le président Sall pour ça. parce que <laughs> moo tax. maa ngi président moom mi ngi si wàllu mi ngi de <laughs> léegi ce sera avec Amadou Ba. waaw un grand frère c' aussi un ami. et il a il a le profil de l' emploi. bëgguma di problème entre ñoom ñaar. non y' a pas de problème il faut pas y de problème. kon ñu ngi leen jox daje incha allah mercredi prochain avec un autre invité incha allah au revoir.